asalaamaaleykum amis téléspectateurs de Kër Ndanane TV di amaat mbégte ak kontaante di leen teewal fii si seen plateau café show de ce mardi ginnaaw bi ma sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam damay sant di gërëm samay ñaari waajur

waa équipe plateau ku ci mel ni soxna Diarra Bousso nga xam ne tout astuce moom moo ko indi tegal ñu ko ci table nee naa leen astuce da leen koy xaar ndax astuce dafa nekk lu am solo donc muy xale muy mag muy ñëpp daal góor di jigéen soxna Diarra Bousso dina leen indil astuce incha allah mi ngi toog sama côté dinaa ko bàyyi ci kanam daal di nuyoo ku ci mel ni Ndeye Fatou nga xam ne tout qui actualité people moo ko indi tegal na ko ci table bi aussi dinañ ko bàyyi léegi mu daal di nuyoo nee leen Café Show Plus ni leen demee saa su nekk dama leen indil ay ñu def dañu bëgg jàngat jàngat mooy leen par exemple suñu toogee fii képp ku toog jàkkaarloo ñu seetaan nga am lu xam-xam boo fi jëlee njëriñ boo xamante dina la jëriñ loo xam ne dina la jàppale ci sa dund loo xamante ne yëngatu ci mbirum tontine di yëngatu ci mbirum lépp loo xam ne jàppale nit la pour mu liggéey maanaam dalay fekk nga toog sa place ngay liggéey nga yor sa 1000 francs di liggéey moom li muy def mooy dina la jéem a boosté jéem la jàppale jàppale la ba yow tey nga mën a dem tey mën nga pourquoi pas nga dem xëy rek nekk millionnaire mën na ci loxoom lay jaar incha allah dinaa ko bàyyi léegi mu waxtaan ak yéen ci lu bëree bëri donc bu leen bouger restez scotché devant votre chaîne ngeen xaar li leen di xaar nee naa leen indilaat na leen ki nga xamante ne ni moom euh, papa papa Sow mu ngi nii ñëwaat na fi nga xamante ne papa bu ko soxlaa ko tuddee mu ngi nii ñëw toog <laughs> macha allah dinaa ko bàyyi léegi ci kanam mu daal di nuyoo mbokku téléspectateurs yi mm. comme Sonko moom a chaque fois nee naa leen lu bokk ci ko bàyyi ci kanam léegi mu nuyoo soxna Jaara Bousso nuyaar nuyu naa la naa la waa delloo ziar di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di nuyu mbooleem koo xamante ni bokk naa ak yow plateau di rafet lu toogaay bi macha allah di nuyu xale yi ci biir kër gi di liggéey liggéey bu rafet bi di ziare ñëpp tey balu ñëpp ak di am kontante nag euh, jóge ci guddi gu tedd gi muy guddi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu demoon Tiwaawoon ziare ji ñi demoon fu nekk dem ziare ji képp koo xamante ni dem nga ziar rek ñaan loo fa julli ñaan ko yàlla ko yàlla amiin yaa rabbi merci beaucoup soxna Diarra Bousso maa ngi lay ziar bu baax a baax encore une fois nee naa leen euh, tout ce qui est astuce da ko indi léegi bëggoon naa tey nga daal di ñu wax tey lan nga ñu fas yéene waxtaan ak bi ci lan nga indi ci astuce. waa tey li ma indi si astuce euh, mooy xobu fooy bu mango laa indi. xobu mango muy xobu mango. Mhm. Euh, ñu nekk ci nawet mhm. xale yi di dëgg pont yi. Mhm. di zing yi di xotti nit ñi. lu bëri di leen dal te am na ñoo xam ne seen loxo jotul seen gannaaw pour ñu mën a dem. piqûre tétanos. Euh, fooy bi ak borom yaram yu tëcc yi ak borom yaram yu tëcc yi ñi nga mhm. xamante ne nii dañu amee feebar jaune mhm. ñi nga xamante ne nii dañu amee yaram ay yax yuy metti mhm. ñi nga xamante ni itamit dañu amee suukar su bëree bari soo xamante ni nii léeg-léeg dañuy dem ba ñu leen seen taux de suukar dafa élevé wu de trop waaw kii bi xob bi ma indi da mm, koy da koy da koy wàññi mm, soxna Ndade Bousso maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax a mm-hmm. donc nee leen toujours restez scotché devant votre chaîne ndax njëriñ ngeen fii jëlee soxna Ndade mango leen indil donc nee naa leen hôpital am na ñoo xam ne amuñu xaalis pour dem donc nee naa la yàlla daf ñu wàcceel ay garab yoo xamante ne ni mën ngeen ko jëfandikoo te du ngeen ci dépensé dara dara dara donc toog leen ngeen xaar Ndeye Fatou maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar ma naka mardi bi di leen ziar di la ziar bu baax si ma bàyyi waaw ah, bàyyi la nga nuyoo bokk kontaan aussi bokk ak plateau bi asalaamaaleykum chers téléspectateurs de Kër Ndanane TV euh, ñoo ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay di leen ziar di leen tatagal euh, di leen baalu àq comme nii ko soxna jaara waxee di leen baal àq te xam ne euh, doomu aadama moo matul lépp loo xam ne nii dafa aju ci mata di doomu aadama rek moroomu nawleem doomu aadama moo koy comprendre ba man koo xam mën koo téye boppam comme ni mu téyee ni mu la ni mu téye la comme ni mu téyelee boppam di leen ziar bu baax di leen waxaat lañ leen daan wax di leen aimé di abonné di li nga xam ne mooy xew fii ci Kër Ndanane TV ñu koy jëlee ak fépp fu ñu ko mënti jëlee di leen ko tegal fii ci plateau bi mm-hmm. euh, di amaat encore une fois satisfaction teew fii ci émission Café bi euh, di nuyu soxna jaara sama goro maa ngi lay nuyu di la ziar euh, di la ndokkeel ci yoonu gàmm bi nga xam ne jóge nga fa toj fa yàq suñu nawle boobu <laughs> borom war xox <laughs> ñu koy ziar bu baax moom aussi di nuyu di ziar suñu invité yi nga xam ne ñoom lañ dalal tey si plateau bi mm-hmm. kii ma jàkkaarloo mu mel ni sama mbokk taalibe baay su ma juumul ma lay ziar bu baax ma taalibe baay daf may frappé ma ko gisee googu noonu daf may dugg bu baax <laughs> di ziar aussi ah, suñu suñu patriote bi nga xam ne moom lañ jàkkaarloo ah, di la ziar di la dalal jàmm fii ci Keur Ndanane TV jatu hmm. merci beaucoup Ndeye ma bàyyi la nga jox ñu actualité revue actualité people du moins. jatu euh, tey su ma ñëwee seen actualité people du jour damay ñëw ci li nga xam ne nii mooy Serigne Moustapha. Mm-hmm. Ah, jamono yi ñu dégg kenn ku ci nekk dégg kaddu yi nga xam ne nii mu ngi koy yëkkati. Mm-hmm. Ah, kaddu yoo xam ne nii ba mu koy yëkkatee tamit am na ñeneen ñoo xam ne àddu nañ ci. Mm-hmm. Ah, dinañ ci ñëw si kanam. suñ jógee foofu ñu ñëw li nga xam ne moo xew moo xew biir kër Aziz Ndiaye si weeru gàmm bi. moo xam Aziz Ndiaye la ak soxnaam si nga xam ne jël na ko muy Aïcha Rasoul ak ñi nga xam ne ay communicateur traditionnel national lañ nekk foofu ci biir euh, fête bi mhm. Aziz dalaloo leen ñu àddu ci mhm. dinañ ci ñëw tamit ci dàq bi nga xam ne dàq nañ ko foofu noonu ca kër ga nga xam ne mhm. mooy Ouzin Keita euh, dinañ ci ñëw ci reela euh, ñu jóge foofu ñëw ci ki nga xam ne mooy Serigne Bara Ndiaye Serigne Bara Ndiaye le marabout du peuple Serigne Bara Ndiaye comme ni ñu koy faral di waxee ñu gis récemment mu génne li nga xam ne mooy kaso ñu gis ko tamit muy àddu ci li nga xam ne mooy diggante Madiambal Diagne propos yi nga xam ne moo ngi koy tenir à l'endroit des chefs religieux ak à de ki nga xam ne nii mooy seen kilifa muy Ousmane Sonko Euh, suñ jógee foofu noonu ñu ñëw ci kii li nga xam ne mooy divorce Daba Seye euh, Daba Seye ak Mor Mané ku dégg seen diggante ñoom ñaar tey nga xëy ñu ne la ñaar ñi dañoo divorcé ah, man nga xaar ne sëy bu nekk mën na tas ah, comme ñoom seen sëy moo tas mm-hmm. euh, jatu loolu lañ leen indiloon tey seen actualité people di jour merci beaucoup Ndeye Fatou ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax a baax nee naa leen toujours rek restez mhm. scotché devant votre chaîne dara ba léegi rek ci actualité people bi ngi ñëw léegi nee leen du lourd toog leen xaar bu ko defee damay daal di jox kàddu ki nga xam ne moom mooy monsieur Diouf monsieur Lamine Diouf mhm. maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax ma bàyyi la nga nuyoog mbokk téléspectateurs yi waaw ah, asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi ziare waa kër gi nga xam ne moo nekk Kër Ndaanaan TV di ziare yéen yi ma fekk ci talaata bi surtout yow mi nga xam ne ni tey yaa ñu dalal ci émission bu mag bi nga xam ne ñëpp a ngi koy suivre à travers le monde mm-hmm. di jaaral foofu rek di nuyu ñi nga xam ne demoon nañ gàmmu ji ak ko ci nekk fa nga ko mën a gàmmoo rek yéene yi benn la mooy ñaan jàmm yàlla defal ñu mucc ak mucc la yàlla may ñu wér en fait mm-hmm. may ñu ñu fekke ko at yu bëri ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam di nuyu soxna jaara xam naa daa sonn moom it ñu ngi koy masso yàlla na ko yeneen coono gàmm gee ko dal di nuyu tamit uh, Ndeye Fatou nga xam ne moom it comme ni mu ko waxee rek sama mbokkum taalibe la ñu di ko ziyaare di ko ñaanal yàlla ma tuddee moo ma yar moo ma jàngal di ñaan yàlla rek fa ñaan mhm. na ko yàlla def jàmm di ziyaare sama mbokk patriote bi mhm. moom champion la ñu ngi koy sant di ko gërëm <laughs> di ñaan yàlla rek lépp luñ fi nar a wax rek na mm-hmm. ñeel njëriñ askan wi mm-hmm. lépp lu ci juum comme mati doomu aadama la tamante mate fépp mm-hmm. yàlla nañu ko suñu nawlee di jéggal ci barke nit yàlla Muhammad amiin yaa rabbi merci beaucoup monsieur Diouf ñu ngi lay jaajëfal bu baax di am mbégte dalal la si plateau Café Show Plus dinaa dellusiwaat si yow léegi incha allah ñu yaatal ko yaatal ko bu mu gën a yaatu damay daal di jox kàddu gi rek papa papa Sow papa bu papa bu Sonko sax laa la tuddee. papa maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar di amaat mbégte dala daal la sax laay wax ndax une deuxième fois si plateau Café Show ma bàyyi la nga nuyoog mbokk téléspectateurs yi. salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum waa plateau bi. jërë jërëjëf Seydina Ousmane Sonko mu sell mi ginnaaw boo leen nuyoo ginnaaw boo ma leen sant gërëm leen c'est la deuxième fois ma ñëw fii e tamit euh, di kontaan ci invitation bi di nga xamal ni ñun Sénégal kese moo ñu ñor leneen lu dul Sénégal ñoruñu mhm. Ousmane Sonko kese moo ñor leneen lu dul Ousmane Sonko ñoruñu mhm. bisimilah am nga ci plein droit ku ci nekk am nga droit far fa la nga droit wane fi nga far mm-hmm. ndaxte nit naa na la nga nekk takk ci rib boo duggee ci diwtiir da tax ko ci war nañ xoolaat est-ce que yow réellement diwtiir nga laaloon wala laaloo ko mi tiir nga laaloon macha allah euh, papa dinaa ñëwaat dellu si yow si yow léegi léegi léegi incha allah mbokk téléspectateur nee naa na nii lay demee saa su nekk Café Show Plus daal chaque fois ay surprise la donc toog leen ngeen xaar ni mu ngi ñëw su ko defee damay daal di bàyyi yéen Ndeye Fatou mu daal di yaatalal ñu actualité people ajatutay actualité people comme mm-hmm. euh, ki nga xam ne mooy Serigne Moustapha mm-hmm. euh, Serigne Moustapha si ñu koy jox war ma bu baax mm-hmm. euh, di ko nuyu moom tamit di ko ziar di ko màggal di ko jox tolluwaayu baayam sëñ Moustapha doon doon génn ci période gàmmu bi muy wax jëmale man na côté bi ma intéressé mooy côté bi nga xam ne fa la jëmee ci côté artistes yi mu jóg jóg wax ni ki nga xam ne moom mooy faatu Guewel woyoon na ko fii keroog ba mu ko woyee dañoo taxaw nekk sëñ Mansour si moom nga waroon a woy Euh, mu jóge foofu noonu ñu gis ki nga xam ne abu moom Aboubacar Samb Aboubacar Samb yëkkati ay kàddu éloge yoo xam ne ni mu ngi ko jëmle ci moom maanaam du way la sax mm-hmm. mais mais bàkk na ko ci ci ci ci ni mu ko mën a bàkkee mais mu ne ko xaaral tuuti ñu ngi ñëw gor say tànk sa kaw lañ jëm mm-hmm. parce que ki nga xam ne mooy Kumba Gaaw la Seck na ma fi ba mu ma fi euh, si lañ ko si lañ téye voix am mm-hmm. man nag du ma dugg ci loo xam ne nii mooy seen biir ci biir man foofu laa yem ci côté artiste euh, di wax li nga xam ne nii mooy kàddu yi nga xam ne sëñ Moustapha yëkkati na ko mu doon kàddu yoo xam ne nii dafa dafa lëmbe toile bi am ñoo xam ne dem nañ bay addu di wax ne est-ce que sëñ Moustapha il réfléchit est nit la koo xam ne dina xalaat mm-hmm. est-ce que jaawaalewul casquette politique bi nga xam ne moom moom la sol est du mm-hmm. moom la bëgg a jël dugal ko ci biir kër kilifa diine yi euh, du ma sori parce que dossier bu complexe la mm-hmm. euh, suñ jógee foofu ñu ñëw ci li nga xam ne moo xew biir kër Aziz Ndiaye euh, képp xam ku ku dem tuwaawan ak ku demu yëpp di leen fa fekk euh, ñi nga xam ne dañuy yëngu si showbiz bi di nga leen fa fekk ñi nga xam ne ay communicateur traditionnel la fekk nañ leen fa euh, ñi nga xam ne aussi tamit euh, dañuy yëngu ci maanaam ay people lañ fekk nañ leen foofu ci kër Aziz Ndiaye kër Aziz Ndiaye nag li nga xam ne moo ko doon lëmbee muy diggante soxna Aziz Ndiaye gi nga xam ne takk na ko muy Aïcha Rachoul ñi nga xam ne ñooy suñu mbokk suñu nawle yi suñ ñëwee seen question dañ koy tourner autour de loolu mais ñu doomam ci ki nga xam ne moom mooy Mame Binta ñu gis euh, ñi nga xam ne mooy suñu nawle yi di ko interpellé ci li nga xam ne mooy takku takku takku boobu noonu mm-hmm. euh, moom moom bëggu ci àddu euh, bëggu ci wax a mm-hmm. chaque fois suñu waxee rek dafay dafay dafay tourner question bi beneen sens comme si que ni ñoom sëy bi daf leen neexul wala lan mm-hmm. bu ñu ñëwee ci ki nga xam ne mooy soxna Aziz Ndiaye ki fa nekk mooy Miss Ndiaye ñu posé ko ay question dama naan sama genre di sax ñemewuñu parce que bu fekkonte ne man mii la dinaa ay question yàlla yi euh, ñu gis complicité bi nga xam ne nii ñu ngi doon noté moom entre moom ak ki nga xam ne moom mooy Aziz Ndiaye euh, euh, ma jeu bu ñu doon ma lu doon wane la mais en tout cas à chaque fois dinañ ko gis mooy borom këram ñu jógee foofu noonu ñëw tamit ki nga xam ne mooy le grand communicateur traditionnel muy Bekaay Mbaye ak Ousseyn Abdou Aziz Mbaye et tout ne ki nga xam ne moom mooy Aziz Ndiaye am na droit takk ba quatre femmes mm-hmm. li nga xam ne mooy ki mu jël deuxième femme moom la neex moom moom xaalisam góor la am na droit takk ku ko neex euh, ki nga xam ne moom mooy Miss Ndiaye ba muy ñëw sa kër ga dafa fekk Mame Binta ñu noon doon dund ci dund bu rafet di dund ci ambiance bu rafet donc suñ ko indilee wujj amul dara loo xam ne nii war na ko cee wax parce que Aziz Ndiaye si droit am la nekk euh, ñu ne ñu waxoon fii ne may na ko 30 millions et tout euh, gars yi ñëpp nag lépp lu ci manti am daal rafetal nañ ko ba rafet mm. euh, ñu jóge foofu nag ñëw ki nga xam ne nii moo doon téye bës bi mooy téye bës Sénégal muy Ouzin comme ni mu koy waxee Ouzin Keita dafa dafa dafa jóge tuwaawan rek woo woo woo woo woo sit yi ñëw taxaw wax moom moom moom bës bi nga xam ne moom lay woote à chaque fois daf koy wuyoo man nag li ma si gën a neex mooy Ouzin Keita taxaw na si bunt bi xale yi di ko yuuxoo <clears throat> xale yi di ko yuuxoo dañ koo dàq dañ koo dàq dañ koo génne dañ koo génne affaire bu neex nekk affaire bu neex mm-hmm. ci ci moom moom mii nga xam ne moom mooy Ouzin Keita lu nekk yekk na ko kii nga xam ne mooy Aziz Ndiaye moom nee na Aziz si boppam euh, dàqu ko personnellement mais dafa yeble koo xam ne nii moom moo ko daax euh, ne dañ ko dañ ko nekk Aziz kaay ñu ñu ñu ñu entrer le VIP ñu jaarale ko ci porte boo xam ne beneen porte la nekk te porte porte de sortie la ñu koy interpeller ne ko est-ce que ni nga solo du affaire jigéen et mais wane na ni mu solo yëpp mm-hmm. euh, ne li mu sol lu baax la nangam Aziz Ndiaye comme jullit la te dafa wote gàmmu amul droit pour daax ko mën na xaw ma Aziz moo ko daax xaw ma Aziz daaxu ko mais daal xam naa ne Ouzin Keita moom euh, dafa bokk ci ci ci ci milieu bi kenn mënatu ko cee génn na ba mu duggee gars yi dañ ñëw di photo woo ak moom et tout mu téye bës bi xam naa gars loolu lañ ko ñeewee tout mu ñu génn ko dàq ko mm-hmm. ak lu ci manti am na xëy na Aziz dina wax ndax moo ko dàq wala dàq ko mm-hmm. suñ jógee foofu ñu ñëw ci ki nga xam ne mooy sëñ Bara Ndiaye sëñ Bara Ndiaye nekkoon fi euh, kaso ginnaaw lu yàgg lool mm-hmm. euh, ci ay propos yoo xam ne nii daf ko doon yëkkati euh, moo jëm ci wàllu politique domaine politique Cheikh Bara Ndiaye génne récemment ñu gis ko ci benn video muy dénoncer li nga xam ne mooy propo yi nga xam ne Madiambal Diagne mu ngi koy tenir à chaque fois à l'endroit des chefs religieux Diagne ne ki nga xam ne mooy sëñ Bass sëñ Bass Abdou Khadre euh, du nawleem ba mu taxaw ne sëñ Bass Abdou Khadre moo ko waxoon nekk ci élection législative yi nga xam ne si lañ génn ki nga xam ne mooy le patriote Ousmane Sonko moo jëloon troisième ñu ne ko comme moom élection yi moo jël troisième suñ demee élection présidentielle mën na nekk le chef de l'État mën na jël première nee ki nga xam ne moom mooy Madiambal Diagne wax ko ne ko euh, moom Ousmane Sonko salafiste la parce que salafiste gi mu doon permettre ko moom muy jiite Sénégal parce que su jiitee Sénégal euh, du Touba li ñu gëm ak moom li mu gëm bokkul euh, ki nga xam ne mooy mooy Mara euh, sëñ Baara Ndiaye aussi di wax ne Madiambal Diagne di ko rentre à sa place di ko wax ne ko sëñ Bass Abdou Khadre encore une fois nawlaw la su fekkente ne am na lu muy wax propos yu doy noonu ki nga xam ne mooy le chef de l'État Macky Sall kooku la koy waxal mais du ñëw di ko wax ak yow euh, mm. sëñ Baara Ndiaye aussi am posture beneen posture boo xam ne nii gis nañ ko ci moom mu taxaw di défendre li nga xam ne mooy chef religieux ku si mel ni les les chefs coutumiers de Tivaouane Touba Ndiassane et tout muy wax ne ñoom li nga xam ne moom moo leen ñor mooy diine l'islam te si diine l'islam la ñuy dox mhm. su fekkee ne affaire politique la mhm. affaire de la cité la ñoom suñu amee seen moo boo xam ne war nañ ko see sànni dinañ ko si sànni mhm. mais en tout cas du ki nga xam ne mooy Madiambal Diagne moom lañuy dem di ko tenir seen ay propos encore tamit ki nga xam ne mooy euh, Serigne Bara Ndiaye ñëw si ki nga xam ne mooy euh, le général Moussa musa Troy mu ñëw si général bi mu ne général bi dafa dafa dafa wax ni euh, nañ nañ nañ barricade Touba maanaam nañ yokk sécurité bi xam ne mooy excusez-moi c'est le général Moussa mhm. euh, parce que ki nga xam ne mooy mooy Touba euh, dafa nekk ci menace menace boobu nga xam ne moom la nekk. Mhm. Euh, war moo leen war a mën a permettre ba dispositif de sécurité bi nga xam ne doon nañ ko yóbbu Touba cette fois-ci dañ koy doubler. ki nga xam ne c'est mooy sëñ Bara Ndiaye nag ñëw ci loolu noonu di tàkkale sévèrement ki nga xam ne mooy le général Moussa Fall muy wax ne. bu fekkente ne ñoom dañoo ragal parce que ragal loo ko mën a tuddee parce que ñi nga xam ne mooy mooy mooy patriote yi bi nga xam ne dañoo topp Ousmane Sonko la majeure partie dañu nekk ay ay ay murit dañoo nekk ay Baye Fall li ñu bëgg a gëmloo nit ñi ne patriote ne ne ne murit yi ak Baye Fall yi ànduñu ak Ousmane Sonko loolu amul donc su fekkente ne day déplorer dispositif bu toll noonu daf koy daf koy déployer à l'endroit de sécurité ki nga xam ne mooy Macky Sall mais déployer ko à l'endroit des chefs religieux euh, mooy loolu nga xam ne nii mooy Cheikh Ndiaye jëmale na ci ki nga xam ne mooy le général Moussa Fall euh, suñ jógee foofu jatu ñu ñëw si ki nga xam ne mooy divorce Daba Seye jatu man damaa choqué euh, parce que Daba Seye ku ko xam-xam ko ak mormaane daba sëy bañ na ko ba dallu xam su ko bëggee ti sax danaan mormaane daba sëy su sol su sol yëre mormaane lay wax mhm. daba sëy su takkoon musóoram ba nekk fiit mormaane la ciy teg mhm. mu mel ni mormaane moom dafa nekk benn mit ci moom euh, tey ñu xëy suba dégg ne euh, mormaane ak ki nga xam ne mooy daba sëy dañoo divorcé gars yi doon ci lam-laame di ci wax ñu naan dëgg la wala du dëgg mais c'est devenu officiel mu doon loo xam ne ni yéenewuñu ko kenn ñaanaluñ ko kenn man mhm. en tout cas man bu fekkee te ne sëyu moom moo tas mën ñoo xaar yeneen sëy yu tas jatu may ñëw foofu noonu di wax ne euh, ñi nga xam ne ñooy ay femmes nekk ay célébrité euh, nekk ci bës bi hmm. nekk ay people ñu ngi bëgg a dee seen ay kër dañoo ñemewul a yuuxu sëy yu metti la ñuy sëy sëy yu tar la ñuy sëy hmm. c'est parce que ñoom dafa dañoo doon ñoo xam ne nii buñ jógee comme nii dama sëy def nii doon toog ci plateau yi di tagg mormaane et tout su amee lu koy metti si këram dina ko téye hmm. may wax ne jigéen du xëy jigéen man na tas toog ci këram pendant deux ans fekk amu fa lu ko neex mhm. mu xëy suba rek ne tas naa fekk na muñ na ba dee daba sëy lu ko waaye mën a waxal waxal que ne muñ kat la jotu loolu laa leen mhm. indiloon tey seen actualité people du jour merci beaucoup merci beaucoup Ndeye Fatou ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax ndax nee naa leen actualité people moom lay indi tegal ñu ko ci table bi jox ñu ko ñoom ñu ko war a joxee ñu consommé ko dañ ko war a consommé ndax nee nga xam ne moo xew ci jamono ji rek euh, maanaam ñu koy waxtaane waxtaane ci grand yi di ko waxtaane ci moom la indi tegal ñu ko ci table ñu yaatal ko ba mu gën a yaatu ñu la ciy jaajëfal bu baax a baax damay ñëw ci benn parenthèse bu ndaw rek balaa may ñëw ci anniversaire u borom kër gi ndax comme borom anniversaire am passé na faaw ñu feetal ko ko ji xaw koo jàll tuuti ndaxte moom moom kër gi te wax dëgg yàlla faaw ñu feetal anniversaire bi donc balaa may def damay ñëw rek tuuti ci mariage divorce Daba Seye ak Mohamane bi donc mu nekk loo ñuy gis lii ci kanam nii rek mais lu ci ginnaaw duñ ko mën a gis voilà li ci ginnaaw duñ ko mën a gis mais bon dañuy rafet njortu rek mais di rafet njort parce que da ngay gis à chaque fois xale jigéen ñi sëyagul sax dañuy gis ñu ñi nga xam ne dañu siiw ñu gis leen ni ñuy dundee ak seen jëkkër ñu am envie sax ne lii laa bëgg a dundee pourquoi melu ma nii ak sama jëkkër pourquoi sama jëkkër du ma comporté ak man nii alors que réalité bi ci nekk ci biir duñ ko wane dañuy effacer li nga xamante ne nii moom moo moom moo ñaaw jël lu rafet di ko wane rek à chaque fois mais yéene wuñ ko ko nag franchement ndaxte su ma xoolee si mariage bi rek kàddu yu rafet yi ñu seedalante ñoom ñaar ak ñu muñalante ñoom ñaar donc mënoon nañ toog mais bon yàlla moom sëy ak tas si yàlla lay jóge donc ñun mënuñu ci dara dañ leen di ñaanal rek bu yàlla defee ñu war a dellu dinañ delluwaat bu yàlla deful ñu war a dellu duñu delluwaat mi ngi noonu Ousin Keita tamit damay ñëwaat ci kaawam rek ndax Ousin vraiment dama ko mujjee yërëm yërëm naa ko lool Ousin ndeysaan ak Sabadoor Sabadoor la sol xoma robb ndeysaan bu la grand bu la robb la waaw mi ngi noonu rob la man daal ma gis ko <laughs> xaw ma robb la xaw ma grand boobu ndeysaan ndeysaan mu ngi wax ndeysaan ma yërëm ko gars yi naan kan doo dugg ak du ma dugg donc ñi naan Aziz a ko daax ñi naan Aziz daaxu ko donc kenn xamul yàlla rek a xam en tout cas bi mu duggee ci biir kër gi créé woon na fa buzz ndax créé buzz weesuwul mu dugg si gars yi ñëw di photo ak moom di ko may kii xam nga gars gis ko ñu dem jël ko yóbbu ko ci VIP génn ko porte de sortie donc mu nekk lu metti donc ma yërëm ko nag bi ko journaliste bi di interviewé ndeysaan yërëm naa ko loolu ndax ni mu waxee rek gëm naa ni mais Sénégal tamit nañu mu mënti am solo ndax ci milieu bi la bokk kenn mënu ko cee génne donc nañ ko rafetal <laughs> na loolu di ko lu metti la nag vraiment lu metti la maa ngi ree mais vraiment yërëm naa naa ko ndax ni mu du affaire bi ni mu jemoon ni mu jàllee metti na trop metti na trop mbokk téléspectateurs yi mi ngi noonu seen actualité people jàll na si jàmm salaam bu ko defee damay daal di bàyyi may bàyyi soxna Diarra Bousso mu développé ñu li nga xam ne mooy xaw bu bi ñu indil muy vertu astuce la boo xamante ne lu baax la ci lu am njëriñ ci xale ak mag ndaw ci ñëpp balaa ma koy bàyyi dañuy daal di souhaiter un joyeux anniversaire suñu PDG mi nga xam mooy borom kër gi monsieur Diack Ndaanaan ne moo nekk ba ca Italie xam Diack ci liggéey xam xam ko ci aussi dimbali ay nit vraiment mu nekk li naan l'homme social boo koy wax ci moom nga koy ndaxte nekk na nit koo xamante ne nii chaque jour buy wax rek ci liggéey lay wax waxul ci leneen lu dul ci liggéey lu liggéeyam jëmee kanam nu keneen di def ba développé wu nu keneen di def ba gën a liggéey ci loolu lay dox donc ñu ngi lay souhaiter un joyeux anniversaire may jaar foofu bu di la ñaanal yow gudd fan ak ma bàyyi leen rek su ngeen amee kàddu yi ngeen ci mën a sànni jatu euh, euh, di kontaante rek mhm. ci anniversaire PDG bi di ko mhm. ñaanal ñaanal yàlla yàlla naka feete ay téeméeri téeméeri at ba ay sëtam fekke ka ñëpp fekke ka daal ñu am kontaan lool lool lool lool lool ci mhm. anniversaire bi amiin yaa rabbi merci beaucoup soxna Diarra Bousso Ndeye Fatou jot comme ni mhm. euh, mu dund dund mhm. dund dund dund ba réaliser li nga xam ne moom mooy ay projet bi yëpp ici au Sénégal et là-bas aussi au diaspora ñu koy ñaanal aussi muy dund dund ba fekkee comme ni ko soxna Diarra waxee ay njaritu njariñu ñoo ay doomam ay mm-hmm. yëpp euh, mm-hmm. di di remercier waale kooku ngay wax tamit muy madame Diack koy mm-hmm. remercier bu baax aussi moom tamit euh, travail bi nga xam ne moom la ñuy def aussi moom lay moom lay def foofu mu nekk noonu à chaque fois man j'ai l'habitude de dire que derrière chaque grand la grande dame qui est derrière d PDG ñu koy ñaanal yàlla mu dund dund dund dund anyway fekkee lépp macha allah merci beaucoup euh, Ndeye Fatou merci beaucoup Soxna Diarra Bousso mi ngi noonu anniversaire baa ngi noonu PDG nag garaawul mais gâteau bi dañ ko commande mais dafa yéex a ñëw dañuy bàyyi xam naa prochaine émission incha allah ñun di gato bi daal di la souffleel bouche yi souhaité la joie de fête weesagul anniversaire bi une semaine dañ koy feete incha allah rabbi su ko defee soxna jaar dama lay bàyyi rek nga daal di ñu yaatalal euh, xobu mango bi xobu mango bi mhm. ma leen di yaatalal balaa may yaatal ci xobu mango bi Ndeye Fatou dafa am benn kàddu gu mu wax mhm. te Sénégal yu bare bàyyi wuñu xel ci loolu mhm. bare na sëy yoo xam ne ci mbedd lañ koy takkee waaye ci mbedd lay tase sëyu Sénégalais yi ñu ngi koy takke ci mbedd waaye ci mbedd lay tase Euh, Daba Seye nag euh, kenn yéenew ko tas gi mhm. waaye dama leen di wax mbooleem koo xamante ne nii artiste nga mhm. nekk Sénégal mhm. am na loo xamante ni nii sëy kenn du ko def ci ay réseaux sociaux sutura dafa baax sutura dafa baax nit dina sëy ak borom këram ba tas ci biir kër gi ba keneen jël ko yóbbu ko te kenn xamul ne jóge na ci biir kër gi ndax euh, olof day wax di nit dana sëy ba lambal doomam te du ko yëg waaye nit dana sëy ba jaay doomam te du ko yëg ñu gën a suudewaat ñun jigéen ñi mm-hmm. ndax ñun ñooy yaay mm-hmm. ñoo war a defar ñoo mm-hmm. war a yàq te lii yàqu ci ñun lay jóge lii defaru ci ñun lay jóge kon ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm bu yàlla ne sëy bi du jeex man ta jeex su yàlla nee day jeex day jeex waaw mi ngi noonu ma ñëw ci xobu mango bi ma indi tey jii jatu fooy bii ma indi. xobu mango xobu mango bi euh, am na boo xamante ni dafa verte. waaw mooy bu tooy bi. mooy bu tooy bi dafa xaw a wow. bii dafa xaw a wow li mm-hmm. tax ma indi bu wow bi. Mm-hmm. njariñ li ci bu bu wow bi rek moo nekk ci bu vert bi. Mm-hmm. mais bu wow bi dafa gën a am importance ndax dafa am foo xamante ne ni dafa gëne bu tooy bi. ndax ah. waaw bu wow bi quoi bu bu bu wow bi hmm. dafa am njariñ loo xamante ni daf ko gëne ci bu tooy bi hmm. ban njariñ la ko ban njariñ la ko gëne ñi ko xam bëriwul ñi ko xam bëriwul hmm. euh, léeg-léeg da gis nit koo xamante ne nii daf ko naan garab gee day faj mu dem ci garab gi dagg waxoon naa ko fi garab boo koy dagg da koy léemu da koy jënd da jënd garab da ngay wax da koy jënd kenn du ñëw rek witt garab dagg ka da nga koy jënd yaa ngi koy jënde faatiya faatiya buy dagg garab da ngay ñëw nga jàng faatiya bu sell mhm. ni bismillah daal di koy dagg soo ko utiliser mu jariñ mun laa jariñ waaw mhm. euh, kii xob la boo xamante ne nii mhm. yàlla moo ko defoon mu nekk ci ndey ji ndey ji mooy garab gi mu xëy suba mu wadd hmm. xamoo lu ko wàcce ci coobare yàlla la wàcce léeg-léeg nit di la wax ni la kon donc dogu ma la bu wow bii nii bokkul xam nga comme bii dafa wadd ci garab bi am na boo xam ne nit ñee koy dagg teg ko mu wow voilà wadd nii ak bi bi ñuy wowal bokkul bi nga xamante ne nii yàlla moo ko tegoon ci garab gi mu nekk ci garab gi ba xëy suba wadd mm-hmm. nga fekk mu wadd nii njariñam dafa bari mm, d'accord nga fekk mu wadd nii ci suuf dañ lay digtal ni la booy dem ci garab di ko wuti boo fekkee li ci suuf wadd foral yooyu ci suuf moo ëpp njariñ moo ëpp yi ci kaw kenn newul amul njariñ mm-hmm. waaye yi ci suuf dafa am njariñ lu am importance bu ci nekk mm-hmm. ndax yàlla ci kàttanam moo ko saxal ci garab gi mm-hmm. xëy suba waddal ko ci garab gi moom yàlla di wane kéem taanam ci garab gi nga xamante ne nii wadd na bakkan ñu bëri dañ naan bakkan xobu garab la day jékki-jékki rek daal di wadd la ci lañ koy jàngate ci xobu garab gii mm, d'accord waaw euh, fooyu mango dafa am nit ñoo xamante ne nii dañuy xëy suba teel seen yaram tayal seen yaram tëccu fasu seen yaram fasu mhm. fuuy mango bii di metti da ngay mhm. wut juróom-ñaari xob set daal set feuille set feuille mhm. euh, garab boo bëggee mu jariñ la doo ko baxal dëgg la garab ku bëgg mu jariñ la doo ko baxal parce que boo ko baxalee am na ferñeent boo xamante ne mu ngi woon ci garab gi déjà loolu tàngoor wi ñamee ko da koy dindi boo ko boo ko boo ko baxalee yow mm-hmm. ndox mu tàng rek ngay am. noo koy def da koy invisé. da nga koy infusé. waaw da ngay baxal ndox mm-hmm. fale ba mu bax fekk raxas nga yi ba mu set. Mm-hmm. nga def ko ci benn kaas bu am kubéer. wala benn pot rek waaw wala benn pot nga jël ndox mi sotti ko ci tëj ko. déjà li nga xamante ni dafa naroon génn day duggaat ci biir. nga bàyyi ko ci nga bàyyi ko ci. ba mu sedd waaw sa yaram ñeme ko. nga daal di yëkkati. daal di koy naan. jatu kii dafa mën faj tétanos ndax dana toll ci réew moo xamante ne nii xëy wuti loo lekk rek. Hmm. dafa doy ñëpp soxla. nga génn sa doom gaañu. Hmm. lañ seet dagg ka hmm. wala muy dox bi xottu biteel xotti ka wala pont jam ka wala dara parce que dañoo nekk ci nawet. dëgg la sa tànk doom di néewi. <laughs> te xamoo sa doom yaramam tàng. mu commencé di la indil crise te xamoo fan nga jëm. ndax soxla yi dafa doy ku ne. te jamono dafa metti dëgg la booba demal nga seeti parce que lii dafay jaay marché. léegi bu jaayoon marché mi ngi ci kër yi kër yu mm-hmm. bëri am na ko mm-hmm. nga daal di dem wut sa set fooy mm-hmm. nga raxas ko ba mu set nga baxal fële ndox ba mu bax nga invisé sotti ki jox ko xale bi dèjà da ngay xool ni euh, te tétanos bi nga xamante ni waroon na dugg xale bi fooy bi da koy dindi da koy raxas ci yaramam daan naa ko dégg sama ñoom maam da koy raxas ci yaramam ba mu set wecc wecc wecc wecc day dindu euh, kii nu mu tuddatee di fièvre jaune pëyis pëyis mm. xobu mango bii da koy dindi. ndax bu fekkee ne da koy invisé di ko naan da ngay gis ni ngay tuuree ndox lépp dafay jaune. Mm. xobu mango bi da koy raxas ba mu set. day dafay dafay faj ñàkk nelaw. insomnie insomnie day dindi insomnie daf koy dindi bu baax a baax a baax a baax ba pare dafay defar suukar ba yamale sa suukar bu toowu suukar bi yokk woon mhm. boo dee naan xobu màngo bi dafay dem ba wàcce toowu mm, suukar bi wàcce ko wàcce ko carrément ba nga xamante ne nii mhm. di nga ci gis njariñ loo xamante ne nii yaakaaroo ko ci woon ci muy xobu mango bi mhm. euh, ma wax la ci beneen boo xamante ni daf ci am solo ndax dafa am xale yoo xamante ni dañuy yàmp yàmp yàmp mooy xale xiibon yàmp mooy xale bi xiiboon karawam di ruus. mooy mm, bopp yooyu xale yi di. waaw xam ne amatul karaw ba pare mu am benn siddit bu nekk ci boppam. dafa dafa dafa am lu ko dugg loo xamante ni dafa am lu ko dugg loo xamante ni nii. Mm-hmm. ci ni ma koy mën a waxee genre kii lay doon tétanos lay doon ci ni ma mën a waxee. Mm, microbe la waaw microbe la boo xamante ni tétanos la nekk ci yaramu xale bi. Mm. bu ko defee mooy dox ci yaram bi fu ne nga dem faji ka fa. fu ne nga wëri ka fa moom bu dee xale bi la trois fois nga koy invité. trois feuilles trois feuilles ngay def raxas ba mu set. infuser ko def ci ndox mu tàng bi daal di koy infuser def ko ci butéel wala ci kaas boo xamante ni moom rek nga koy jox muy naan. da ngay gis karaw gi da ngay gis karaw moo demoon ba nga naan sama doom ji kat man xamatuma lu muy nirool xamatuma lan moo ko jot. fu ne nga dem fa day dem ba day delloo siwaat xale bi. mu daal delloo siwaat ndax dafa am benn lu muy fekk ci biir yaram wi mm-hmm. loo xamante ne nii. koy daal di dindi merci beaucoup soxna Diarra Bousso ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax mbokk téléspectateurs yi jàngat la su ngeen toogee jàkkaarloo ñun du ngeen toog rek seetaan daal di jug dem non non jël seen biir ak seen feuille ngeen noté ndax lépp luñ fiy wax njëriñ la te dina leen jëriñ lool macha allah su ko defee mbokk téléspectateurs yi mu ngi noonu dañuy daal di dem régie dellu si plateau bi

confortable jaratul ngeen di dem di yónnee ay yére Italie ay GP Italie di sonal seen bopp mu naan yére bi daa xat ak wala jotul ak ay dama koy yokk non non dem leen sur ñu ngi fii à Rufisque ginnaaw pharmacie Astel ñu jaay leen yére yu ngeen bëgg costume yéen xam cravate yéen xam dàll yéen xam sac yéen xam robe petite dame grande dame comme ni ma ko waxee rek donc n'hésitez pas ngeen dem seeti leen macha allah su ko defee damay daal di dalal rek sama ci loolu ngay yëngatu muy li nga xam ne moom mooy ndimbal nee naa ndimbal sax laa ko mën a waxee mm. commerçant nga macha allah nekk koo xam ne da ngay yëngatu ci mbirum tontine mm. di yëngatu ci mbirum social du moins mm. donc dama bëggoon rek balaa may dugg ci question yi rek euh, mu néew mu bari nga daal di ma wax tuuti ci sa jaar-jaar rek ndax loolu dafay am solo lool ndax jaar-jaar day motiver nit mooy lépp ah. <laughs> mooy lépp gannaaw bu ñu uh-huh. nuyewaatee beneen yoon di siyaarewaat uh-huh. ñi ñuy seetaan uh-huh. travers le monde man Lamine Diouf lañ may wooyee nekk commerçant en fait nekk business en entreprise. Euh, juddoo Kaolack Medina Baye aussi. macha allah yaroo fa ba ni ma dugg see Ndakaaru di mhm. ambulant. Mhm. jaar ci lu métti aussi comme ñëpp ambulant yëpp daal di fanaan ci mbedd. jaar jaar waaw. voilà <laughs> di lekk mbiskit weex be di def lu nekk comme ni ko ñëpp de <laughs> waaw ñooñu moom xam naa ne. ndeysaan xam nga ñoo ma yoreel njukkal am maa leen ko yoreel. ndeysaan jaar fu métti foo xamante ne nii loolu la góor war a séntu ci dundam. parce que suma papa suma waajuru góor dox mu daan wax naan ma teraanga ak àjjana ku la ko yombul daf la ko nar a xañ a a mm-hmm. parce que bu la leeree ne juddoo fekk ay million te doon as gu war a doon dara mm-hmm. da boole ñaar mooy bëgg ba pare dogu mm-hmm. waaw parce que boo bëggee te dogu woo ci doo ca dem te ñaar yooyu yëpp mu ngi woon ci man te gëmoon naa yàlla gëm naa yonent gëm naa ne feeg yaa ngi dund jaam bi wërsëgam dina ko yóbbaale ñu jaar fu métti tey. lu ñu yàlla mën a may suñu àddina rek ndimbalam la. waaye ku sëyul nay amul. bi ñu fa jaaree nag tooguñu rek ne dañoo war a jékki-jékki génn dëkk bi dem toog feneen wala ñu dem ci benn réew toog fa. Mhm. mais dañu gëm ne balaa nga xool li sa réew defar. Mhm. da xool d'abord yow it lan nga ko defal. maanaam lan nga defal sa réew am na solo waaw kay parce que nit ki war na mhm. am posture serviteur. di servir askanam ci lu gën. te euh, yàlla xañul doomu aadama li bu la joxul alal jox na la ay yitte mm-hmm. bu la joxul ay yitte jox na la xam-xam bu la joxul xam-xam jox na la alal mm-hmm. boo mën a jëflanteeg jaamu yàlla yi ba kenn ku ci nekk rek mm-hmm. waxu bala mel ni yow mais mu doon pilis ngir moom it mu doon serviteur ci ci fànn bu mu féete aussi bi ñu yàlla di sagal ñu koy sant yàlla ci suñu métier muy commerce yàlla dogal nag à 2013 2014 yàlla dogal ñu am am ci ñun confiance ak marché yi ñu am magasin yëpp di fa liggéey. daan ñu dénk euh, seen xaalis départ bi. Mm-hmm. bi ñu koy dénk dénk ba mu yàgg ma ne non dénk nit at baat. Mm-hmm. am ñu jógee ko seen dëkk papa yi seen dëkk yaay am ay jigéen ñoo xam ne ñu ngi góorgóorlu. Mm-hmm. nga nar fi teg ay millions. jox leen ko moom mooy gën. ñoom ñu dem liggéey. balaa at mee del si déwén ba ñii. di soxla seen xaalis après euh, ñoom ñu dajale fekk nañ ci liggéey lu bëri bëri pas noonu laa ko xalaatee euh, doguma la sax balaa ngay balaa ñu gën a xuus ci dugg ci waxtaan bi mm-hmm. xam nga jaar-jaar dafa metti ku nekk mm-hmm. am nga jaar-jaar donc mm-hmm. par rapport ak jaar-jaar yi nga jaar yëpp métti bi nga jaar ban jaar-jaar moo la ci gën a marqué ndax na a marqué ba yow foo toog rek bu ñëwee sa xel rek sa xol day daal di tooy waaw jaar-jaar moo gën a métti mooy génn naa ay at ndax li ngay gis nii dama am diplôme ci wàllu carrelage carrelage maanaam carreleur carreleur parce que jànga ji naa ko am ci diplôme daan ci liggéey ak société yu mel ni Belle te mosuma ci def tamit erreur mais juste amour liggéey day am. ak euh, déglu déglu sa sa sa ndigalu waajur wu góor. Mhm. ndax mu xadam la ci Cheikh Ibrahim. Mhm. su ma ñëwaan toog ak lu ma ko mënaan jox. Mhm. ma lu gën la. mais yow li nga war a doon doo ko jaarale ci lii. man su ma suwaa mooy comme maa ngi dund nga bàyyi métier mi dem defi commerce. ak noo ko mën a ko góor gi yow man maa ngi góor góorgóorlu ci lii ba man ko nga bëgg ma bàyyi ko. mu ne ma daal ah, man de li ma xalaat la parce que euh, jur naa ñu bëri. am nga ay waajur yu bëri am nga kilifa yu bëri mais yow dama bëgg nga dem defi commerce parce que moom ay doomam ñi ay avocat lañ ñi ay ay ay ay ay jàngalekat lañu. Mm-hmm. man rek maa ci doon commerçant ma jaar fi tamit fu métti foo xam ne bëri na mooy nga juddu fekk sa papa téeral la am ak i ak i mm-hmm. di ñëw du ma taaw nag xaajumaa sax ci taaw. am na ay mag yu bëree bëri. mais sooy dem di ñëw ngay ñëw di gis loo mën a faj comme nii gàmm. tey nga xam ne ñaata biis ñooy dal man suma kër rek personnel mais bu njëkk ba da nga daan gis ku ñëw ba gàmm bay ñibbi ci lay doog a jaar pour nuyu leen war na mu ngi dem koy yeneen kër la daloon su ma su ma laajal sama yaay ne naa ma non kër gi moo neexugul moo tax ndax màggagu leen bu kër gi neexoon di nga gis ay xeex am fi fi nga xamee waxi mag sama papa gaañu na mais sama yaay mu doon wax loolu tey da ngay gis ay jàmbur yi nga xam ne nii ñoom dañ daan volonté rek ñoom fu ñu fanaan rek lañ daan bëgg mm-hmm. biñ demee ba ba ba kër gi am kër gi sotti mm-hmm. yàlla indi lépp yàlla indi lépp taxaw daal nga xam ne nii lu mu mm-hmm. gàtt gàtt di nga ko gis ñett nag wala ñeent nag yu ngeew di nga fa gis comme lu ci toll ci góor góorgóorlu ci jëmm ju doy di ji góorgóorlu ci seen naan seen lekk ba ci da ngay luwe sa oto boo xam ne dañ indaale lekk pour toppatoo yooyu da ngay gis kii ñi ñi ñi doon boycotté noonu ñoom ñooy ñëw di xeex ak gan yi. Hmm. nga xam ne nii ñoom ñoo bi ñuy bi ñuy raax par néeg. Hmm. ñoom dañ doon dañ doon ñëw di gàmmu si. Hmm. loolu loolu loolu bokk loo xam ne nii ci benn côté bi su ma xoolaan daan na ma métti. mais tey neex ñàkk moo métti. waaw tabaski jot yow dëkk bi nga nekk doon fa amila doo am paasu ñëw te même boo amoon paasu ñëw it soo ñëwee da ngay semblant nii rek jën sa benn kilotu kaki sol sa. sol sa su ma ñaan toog sama xarit yi ñoom Moussa Ndiaye Italie maa leen nuyu mais yow bàyyi la mi solo ñu dem dem dem kii. ma ne leen noot Kaolack dafa tàng fii mënoo fi sa yëre olof. fekk araam aw ma sax yëre olof loo mais yooyu daan na doon voilà ak amoo amoo loo faye nekk. dama doon gor goo xam ne nii. Mhm. man damay bëgg ku ma wokk rek ma xulula plus. ndeysaan bëgguma dem ci nit naan ko dama bëgg a fanaan naam am naa fi ay frère jong yi te nga yëpp ñoo bokk seen sama kër sax lañ dal gàmm moom ak sama yaay bokk nday ak baay mhm. su ma ne yaay Tamsir maa ngi koy nuyu euh, waaye du ma dem seen kër yi dama mhm. mhm. ba ngoon jot ma fay cent franc dugg ci douze marché sangu sol suma yére jënd attaay su ko dem xool benn gardien banque wala gardien extension voilà waxtaan ak ñoom ba heure tëdd jot ma xool foo benn mer gàddu lal wala carton. te du fajar yàggul. Mm. buñ jullee fajar nga too xaar douze mars bi tijjiwaat ak marché bu nga mën a fekk. Mm-hmm. nga dem sangu. Mm-hmm. jàpp julli xaar tu ndekki ñëw nga jën deux cent franc cent franc mburu mm-hmm. euh, ndambe fukki dërëm café waaw ndambe fukki dërëm après nga nekkaat en route bi mu gën gënee yokk ba tey jëluma nekk parce que aw ma possibilité jël nekk yaa ngi continué di fanaan ci mbedd yi maa ngi continué di su mu demee ba mu yàgg ci laa tàmbale nag génn mhm. di dem ci gox goxaa di di jaay parce que boobu bagage yaa ngi tàmbale yokk voilà mhm. demee ba mu yàgg nag ci laa bagage yi gën a yokk mhm. ma jënd ay oto yoo xam ne ci laa ko yëpp di ko yóbbu ci ay mel ni ngaay ndar gox mbaaj ay ndar ay kii euh, Tiwaawoon Pire ay dégg bu dee zone bi la ay Touba Bambay Bambay taax Bambay séeréer ay euh, euh, dëkk bi Bawal. Mhm. dugg bi Touba Kër Sëñ Ñaan Jóob ay Daaru Xudos Daaru Marnaan. soo demee tamit ci village su ngaay yi Mexe village ay Riso ay Baba Garage affaire yi. Mhm. Kaolack moom miin naa ko parce que suma zone la. Mhm. boori Tamba ay Gulumbu ba di nga yeggee Jawbe. ay Wiri Garak. ba ak Ziguinchor bu kat ay Lindiane ba reconnaissance am. comme liggéeyee fu ñu la xameewul moo dàq. ma demee ba am possibilité nag taxawal place. ma xool dëkk bi ma gën a defal teraanga mooy benn mag mu baax maa ngi koy nuyu. di ko ñaanal yàlla suuf woyof ci kawam. Mm-hmm. sunu yaay la su ma ñëwaan foofu ambulant. Mm-hmm. nga ambulant dox ci naaj dafa métti. su ma ñëwaan nag ba si mi sama yére rek moom këram la ma dugaloon mu ne ma fu la heure yi añ fekk ñëwal añ boobu maa ngi ambulant. bi may retourné nag yàlla di ñëw may retourné ma ñëw fekk doom bi ma Samba mm-hmm. maa ngi koy nuyu ñu ma gaañu na. ma njëkk fa tijji cosmétique. Mhm. tuddee ko kër Champion cosmétique ATP. mu nekk ci route 2 bi booy dem garage Pekes. Mhm. ma tuddee ko maire bi. ma nekk fu ma nekk première place moo fa nekk. di nga tijji voilà. Mhm. ba ni ni yàlla dogalee. Euh, partenaires ñëw weccet ñëw tamit. ma ne Dakar da mën sa bopp doo fa dem. Mm-hmm. parce que jaar naa parce que Dakar maanaam. yombul manaam dëkk rek dëkk rek. waxuma la dund de dëkk rek dafa seer. Mm-hmm. yombul moom yombul tout est cher. léegi nag boo dee góorgóorlu bu mel ni man pour nga am possibilité tëb songu Dakar day jafe. Mm-hmm. place bu fi gën a yomb bu fekkee place bu am jëmm la. ay millions lañ lay laaj pour nga defaraat ko yeneen ak leen. bi yàlla ñëwee nag ma amaat ay place ay marché Zeng mhm. Colobane Doxu Gambie mhm. ay centenaire mhm. ay marché Samb Géej waaye enfance doon dag musique xam ne waratu ta ci benn euh, scandale label la war a doon dëgg mooy ñu yaatal ko ayit nga mën a jege ñi mel ni yow te bëgg a décourager naan su ma amul million duñu liggéey dëgg la foofu laa doon ñëw sax mm-hmm. du ma doguma la mm-hmm. ndaxte loo gis rek dafa am lu ko waral mm-hmm. gannaaw bi nga jaar amee jaar-jaar nga mu metti woon trop ci yow mu metti lu ko ba yàlla tamit nga muñ aussi ndaxte ni naa la boo bëggee dara tamit faaw nga def dara mm-hmm. bu dëgg yaa ngi doon muñ te yàlla ñëw di indi di raam di raam ba yàlla am di indi ay xéwal mm-hmm. tey nga daal di xéwal yooyu te yàlla yàlla jox la tey jii nga daal di ne xaaral du ma ko yemale ci man donc mm-hmm. may def mooy dama koy daal di ko soxla bokk ko soxla mooy damay dem fekk koo xamante ne nii par exemple benn soxna jaara wala benn ndey faatu wala benn euh, papa mu yor di liggéey maanaam euh, soxna jaara vingt mille la yor di liggéey ne ah man lii est dinaa ci génn euh, ndey faatu yor benn dix mille ne ci génn papa mi yor benn sax mën naa ni cinq cent mille wala dara ne nan laa ci mën a def yow da nga koy xelal hmm. maanaam teg ko ci yoon di ko wax ne ko fii ngay jaar fii ngay jaar ci sa hmm. ndimbal hmm. ba mu dem loolu laa bëgg nga expliquer ma ko ah. comment ça se passe réellement waaw ah, parce que lépp loo mën a gis tax lii may def nii di ko defee ci contexte wolof ak yaru mag tubaab moo ko njëkk indi dëgg parce que doomu aadama da ngay xelu doog da balaa nga xelu da ngay xelu dëgg la te pour man ci ci ci zaahir nii bool bu setul waroo ci yekk dara nit ki pour mu wuti alal am ko alal dafa am jikko yu koy wuti man ko am soo ko amee ba noppi dafa am jikko yu koy téye ci yow mu doon ndono. très yooyu nag moo sabab nit ki war ko jàngi. Euh, ci naka section wàllu relation. gannaaw communication wàllu partenariat yooyu yëpp ay section yoo xam ne. pour nga nekk nit koo xam ne vedette lañ lay wooyee. mooy da ngay dajale méthode yooyu. téye ko. mu leer na kii de xam na nu muy wutee xaas am ko. Mhm. mais su ko amee mu mën a doon leneen. lu dul lim doon. pour nga wuti ko nag dafay laaj ay ay ay sacrifice lu bëri. Mhm. mën nañu teel a xëy guddee wàcc mais amuñu lecture boobu loolu ci seen dund. Mhm. ba yow muy mag nit ki lu mu koy magee du at yu bëri du ay yër yu bëri. Mhm. nit ki xel mu rafet nga koy magee ba noppi yéwén ci di ko ko jox yéwén bi mooy nga jege ko. ginnaaw moom tegoon na la fu sori sa liggéey. mais nag nga koy xamal na ko lii miix la du dama juddu fekk ko fi mm. parce que jud buy jud milliardaire bu nekk judduwul ci hôpital bi rek yor maletu xaalis ne milliards yi laa war a juddoo sama dund bii juddu rafle na ba rafle yëre dañ ko taraax laa yog sër mm. rafle na ba rafle mën a wax mën a xool mm. mën a dégg yii yëpp yu ko dab ci dundam la gannaaw ndimbalu yàlla te ba muy duggee ci bàmmeel ci ndimbalu yàlla lay lay lay aajow kon nit d'abord da ngay gëm sa dund ba pare rafet njort ci ni la yàlla bindee ak lim la war a wërsëgal mm-hmm. ci noonu da ngay gis ko bàyyi ko village am rafet jot moo ko fi indi. Mhm. da ngay gis jigéen ju tëj këram. génn dem di jaay ndox wala mu jaay rafet leneen rafet jot moo ko ko yóbbee. Mhm. léegi ku leen encadré. Mhm. moo jafe te amaan na état. talu leen wala mënewul lépp. ba man kenn ku ci nekk. te ñooñu moo sabab ñuy wax nation. nga dem ci moom fekk ko ca la mu gëm la mu bëgg ba mu des mooy yàlla mhm. di ko ci accompagner mais bu ñëpp jàppoon ne mhm. bu dul sa mag di sa rakk mhm. bu dul sa rakk di sa yaay bu dul sa yaay tamit aussi di sa papa war nga ko mën a fekk fa mu nekk jege ko ba boole leen ci benn bu muy collectif boobu nga xam ne moom laa jiite national ci wàllu marketing te yemaluma ko ci ñu am doole mais dama ko wàcce bëri na koo xam ne da doon jaay kafe ñëw fi mais jaayam bi am na plus ñoo yokkute parce que ñaanul yàlla rek ba keroog ñu koy jox ordonnance un million moo mm-hmm. xalaat ne xaaral bala ma koo jënd mm-hmm. ma jaay fanweeri kaas ak juróom-ñaar am na jigéen ñoo xam ne nii dañuy ràbb di jaay am na jigéen ñoo xam ne nii dañuy jaay ay fer am na ñoo xam ne dañuy jaay ay niset et cetera mm-hmm. ay awa ah maa ngi leen nuyu en passage tey mu ngi ne dem kër de ville bu Kaolack am fa pour place macha allah yal na ko yàlla yokk am na si ñoo xam ne nii bi ñu fa wàccee ay abiyaas dañ doon jaay ay chargeur téléphone am ñoo xam ne ay ndaamaraas ñoo xam ne ay banaana juste su xool ne lii ma déparé ci domaine bu a dëkkee siiru man mhm. ba noppi mhm. a guta am lu mu passé permis na bailleur de fonds yu fi toog yoo xam a jënd ñeenti oto mhm. ci même groupe bi danañ ñëw ci ko ban chauffeur bu baax nga gis mais am na fi ku mel ni Pape wala et cetera koo xam ne nii tey boo demoon ci papa mën na la defal ci wàllu armé tamit ak euh, mitaali bi muy def nga xam ne tamit ci lañ bokk ñoom tamit ci parce que am na si ñoo amuñu woon sax euh, euh, nuñ koy tuddatee seen machine yi poste mhm. tey waxuma la poste mhm. mais dem nañ sax ba yokk seen xam ci wàllu technologie pare ci ñëwaat ñu joxaat leen xaalis mhm. ñu man sax tey di dem jënd ay conteneur arminion yaa ngi dégg bu bi ak bu weex bi yëpp di ko indi léegi ñu doon di jaay ay fer ci benn côté bi ay ndaw di liggéey am nga loolu système entrepreneurial dëgg la bi mu yegsee ma ne non du ma def ne dama fiy dee xaalis bi mm-hmm. dama ko njëkkee woon ci ñi ma ko daan dénk ma a leen xaalis bi nag téewu ma ko sama mm-hmm. man maa ngi xëy ndax la bukki daan dundee mm-hmm. mën na cee dund ba dee man maa ngi liggéey maa ngi liggéey loolu sumay mag maa ngi liggéey loolu sumay rakk ak di jàmm di si àll bool lii ngeen may dénk wóolu la ndax yéen dofu leen dina jàpp leen bukki kenn du ko dénk seen te yaakaaruma ne su ma ñàkk jom ak ni ma juddoo fi ma juddoo war na maa mën a dugal ci wax lu dul dëgg wala may def lu deful suma àdduna mais nag lii ngeen may jox dafa am lu ma ci bëgg def mooy di ko jox ñi am jom te bëgg liggéey pour leen ko partager ñii nangu nangu ñuy bañ bañ mhm. ma tàmbale ko première étape deuxième étape ba quinze ci laa ne déedéet comme kenn ku ci nekk am nga li ngay liggéey lu mu tuuti tuuti war nga cee mën a xëy gañe 3000 parce que départ bi doon doon trois dépasse mille cinq cent la woon deux mais somme bi du bëri dañ denc lu mu gën a métti rek gën a arrangé borom ndax naanu ndox la rek gëmal góox mais résultat baa ngi ci kanam foofu laa doon ñëw sax doguma la encore une fois mu mhm. ci bu baax a baax ndaxte mhm. comme foofu noonu état bi nga wax ni jot a expliqué yëpp jàppale nga nit jàppale nit mais jàppale boobu doo ko jàppale ba pare mu jël xaalis bi di maanaam di ko dugal feneen mhm. wala mu naan xaar fan laa ko war a mën a denc wala xaar moom mooy tontine tontine mooy li nga xam ne moom mooy natt maanaam pour jàppaleen tontine boobu naka lay demee waaye tontine bi dañ voilà la ca topp mooy ñu inscrire la. ci juróom-benn format natt yu bokkul ku ci nekk mën nga ci bokk. yaa xam su sa doy liggéey toll ak recette bi ngay. gañe sa liggéey format moo ci nekk. voilà mhm. biñ ko jëlee dañ ko légaliser am na ci avocat. Mhm. suñu yaay maître bint Diop ñu ngi koy ziar bu baax. moom it euh, ku ku bëgg suma dundu jëm kanam la tout le temps bu ñu waxaan. mënu ma yow état sax mënu la fay dañ la war a accompagner. macha allah dugal ci loxoom ngir garanti. <laughs> Mhm. ak Moustapha Gaye commandant nga xam ne suma papa la depuis Wiri Ngara. monsieur le maire bi wuri bay la son papa boole woon ñu mu teel ma boppam mhm. voilà ñu ñoom ñoo defar dossier yeeg staff beeg lépp mhm. ñu jël banque asset ak banque islamique mhm. boole leen ci ngir li ngay xëy di encaisser balaa ma dem sama ma yi xëy ma versé ko mën ko faa versé ko faa versé ñu teg juróom benn format yi bokkul wala juróom suma juumul mooy mu am journée 3000 première bi mooy journée 3000 journée 3000 bi chaque 10 jours fukki fan yu nekk di nga jox nit 2 millions 70 mille si de si natt bi ñaata personnes lay doon boobu. 69 personnes lay doon 69 personnes lay doon 69 personnes. Mhm. chaque euh, maanaam weer chaque 10 jours mhm. euh, chaque 10 si ñoom. 2 mhm. millions 70 mille. ñu continuer suñ demee kon day wane ni trois weer bi ñetti nit ngay ñetti soo joxee soo demee comme gàmmu nii da ngay cinq jours yoo xam ne ñun ñëpp a dem ñun ñëpp koy maase mooy dañ koy taxawal ndax nit ki mënta dem dëkkam wala mu dem gàmmu ji wala et cetera mënul sax kanamam ak fi jamono toll bay man ginnaaw bay mën ginnaaw mais suñu baaree ne dat sàngam baare nañ ko ba dat bii di ñëw mhm. ñëpp dañ ciy maase xamandoo ko comme ni ñu maye woon cinq jours ci gàmm gi démb ci dimanche bi lañ ko tàmbaliwaat ndax samedi si la si la jeexoon mhm. bu fekkee tamit dem nañ ci korité mhm. foofu dañuy maye cinq jours mhm. yoo xam ne nit ñi dañuy dem julli ji voilà comme woor nañ ba pare moom it cinq jours yoo xam ne dañ koy arrêté ba at sàngam ñu tàmbaliwaat ngeen commencé waat ñu tàmbali euh, euh, màggal euh, dama koy tooñ sax di ko tooyee ñoon sëñ Ablaye sëñ Xaarim man ko ci yéen bu ngeen màggalee da ngeen dem kër sëñ ñaan Jóob daara xodoos daara ma naan àlliya dina rey dix jours moo tax yéen may nañ leen tabaski tamit day gudd parce que am na ñoo xam ne tabaski la ñuy dox dox mbokk yi ñu maye 10 jours loolu rek mooy maye yi nga xam ne nii dañ koy maye ci ci ci ci biir biir dix dix mois yi bu fekkee tombel na ko mhm. parce que yenn dix mois rek lay diire mu jeex mhm. ñu sosaat ko mhm. am na tamit journée quinze mille moom sax fukki fan ak juróom di nga nit cinq millions cent soixante quinze mille maanaam journée 15 000 mooy 5 millions 175 000 5 millions 175 000 mooy journée 15 000 bi. mu nekk ñaata personnes boobu. moom day doon 23 personnes. Mm-hmm, d'accord day doon 23 personnes. Mm-hmm. am na tamit journée 12 500. Mm-hmm. moom it chaque 15 jours di nga jox nit 4 millions 475 000. journée 12 500 bi. chaque fukki fan ak juróom weeru nekk ñaar nit nga ciy jox. di nga jox nit 4 millions 475 000. am na beneen montant tamit boo xam ne ni mu ngi nekk dix mille francs chaque quinze jours nga jox nit trois millions ron ci vingt vingt personnes yi am na tamit aussi journée sept mille cinq cent mhm. chaque quinze jours nga jox nit deux millions quatre cent soixante quinze mille mhm. deux millions quatre cent soixante quinze mille voilà am na bu cinq mille aussi mhm. chaque quinze jours nga jox nit un million cinq cent mille ci diiru di euh, dix mois yi ci dix mois voilà maanaam weer mu nekk moom it un million cinq cent mille nga koy jox mhm. voilà loolu moo ci nekk mhm. yi nga xam ne ni pour l'instant mhm. mu ngi en cours yàlla mu ngi dogal depuis 2015 ba léegi merci beaucoup merci beaucoup si éclaircissement bi damay daal di bàyyi sama naataangooy rek euh, papa ma bàyyi la rek su fekkente ne am nga si li jot a wax euh, nga sa gis-gis ak boo amee question boo koy posé rapidement franchement li mu jot a wax man dama cee gis ndeysaan parce que lii nii. Mhm. amaana jeune yu bëri dañ ko manqué. Mhm. ku leen di guider ku leen di booster ku parce que fii da ngay gis jeune bu jàng métier ba mokkal ba mun ko. mais problème mu moyen ngay am pour demal sa bopp parce que man nii daal na ma. Mhm. et loolu noonu ba samay apprenti yi may jàngal métier. dama leen préparer ba nga xam ne si nii tey bu ñu demee ba mun a demal seen bopp sax. ku si nekk dinaa yëkkati machine. yëkkati poste yëkkati lépp loo xam ne si ni soudeur mala dina ko soxla jox la mm-hmm. pour jàppale la nga mën a demal sa bopp parce que am na ñoo xam ne si nii wallahi li ngeen di def nii nii nii a ngi jàppale sax nekkul jeune bi ngeen di jàppale mm-hmm. a mm-hmm. franchement kontaan naa trop ci li ngay <laughs> ne te gis naa sama bopp aussi parce que bi ngay wax sax sama yaram mu ngi daw quoi parce que tellement que man bi ma ciy toll amaana metti woon na trop ba mhm. aw ma ku ma jàppale mhm. mais demal sa bopp am jom rek góorgóorlu rek dem ba yàlla may la li nga bëgg rek ba yàlla may la li bëgg quoi mhm. en bravo <laughs> merci beaucoup merci beaucoup papa ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax soxna jaar bu waaw man day mhm. soxna jatu maa ngi rafetlu kàddoom mhm. yu am solo mhm. ndax bu fukk yu mel ni moom nekkoon fii ci Sénégal ndool gi dina fi jeex wala agressé bi jeex fi wala wala taux de chômage bi liggéey bi ci dëkk dafa am ñaari question rek yoo xamante ni dama ko ko bëgg laaj euh, fii réew mi toll question bu njëkk bi ma lay laaj ndax xale yi tey jeunes yi tey ji bëgg nañu xaalis te nanguwuñu liggéey léeg-léeg nit ñëw nga yëkkati somme cinquante mille parce que dix mille francs rek nit mën na ci góorgóorlu ba mu jural ko lu bëree bëri. Mhm. ba mu delloo boroom dix mille ba. continuer ak li mu am li mu am. Euh, léeg nga gis xale boo xamante ni day ñëw wax la boppam nga yëkkati xaalis jox ko ni ko demal liggéey est-ce que itamit xale bi dina ko liggéeyi. ndax bare na ci ñoo xamante ni danga leen di jox tontin mhm. ñu dem foowee ka naan la dugg na fii mhm. wala dugg na fii ndax dafa am loo xamante ni dafa nekk Sénégal nit ñi di ko jooy muy naar bi naar bi mi ngi tukkal dëkk bi mhm. naar bi yàq na xale yi mhm. naar bi mi ngi tax kër yi ndóol nañu mhm. ndax da ngay gis xale boo xamante ne nii dafay yore xaalisam mhm. di ci liggéey moroomu xaleelam yóbbu ko ci naar bi mhm. mu dem ba jaay terrain boo xamante ni jëndoon na ko ci liggéey bi mu doon liggéey ma la doon laaj loolu itam ak itam nit ki bu ngeen ko joxee muy liggéey ba feebar dab ka wala dee dab ka nan ngeen di defee ak moom ndax dund ak dee ak feebar ñoo am rapidement ah, rek waaw ak jaara ah, comme ni nga expliqué loolu lu wér la parce que loolu sóor nañ ko ndax dal nañu ay yoon yoon yoon yoo xam xamante ni ci ay nit. Mhm. yoo xam ne nag nañu teggil parce que euh, lii lu ci nekk dépassé na ay millions. Mhm. bu fekkoon cinq euh, comme ni nga waxee cinquante mille rek dafa rëy fi jamono toll la. Mhm. mais su soo gisee loolu ñu ngi koy teg ci ñaari contexte mooy nit ki du yàqal nawleem boppam la yàqal. parce que nit ku la woo ci kaa ñu ànd baax kaa ñu ànd doon dara. kooku ni nga ko mën a fay rek mooy jéem a jéem a a baax ànd ak moom. mais nag li ñu naan bu ñëpp doomu aadama yi tey mën nañ la woon jukko bii ba ca biir ñu nga gis ñoom yeneen facette mm. refen yottu ngay ànd ak ñoom ba keroog ngay gis leen mais at yi ma def ak ñoom dañ naa ci yooyu ngay wax yu bëri dañ naa ko ci mm-hmm. ñu dee dañ naa ci ñoo teggil ñu daw dem bitim réew mm-hmm. dañ naa ci ñoo xamante ne nii même fa ñu nekkoon naan fa lañ bokkoo fa lañ jokkoo nekkatuñ fa euh, teggil nga fi nit comme dafa am ci chauffeur si ñoo xam ne da nga leen teggal jëm jënd seen oto bopp mm-hmm. am na si ñoo xam ne nii da leen tegg sax caabi féete leen ginnaaw ndog dal leen bëri na si tey ñoo xamante ne nii teggil nga leen ay 10 millions ay 15 millions dañu dawal weer ñaari weer euh, ndox dal leen caabi féete leen ginnaaw mais yëpp da koy danga koy làmb moo tax tout temps damay wax ñi wax ne dañuy former natt wala ñu téel nit xaalis yàlla dafa gaaw a nattu nit ci jigéen ak xaalis ba tax na boo ci dul liggéey rek pour nga war ko mhm. téel nit mhm. waru la mhm. parce que su fekkoon ne wax naa tout le temps li ma ciy dugalaat ci suma xaalis bopp ngir bañ gàcce ak bañ euh, lu ma fëkkutoon war ma mën a soppi ci lekkal nanu ndax doomu aadama yi xam dama leen ko wax ñoom sax ñoom ñëpp dama leen ko wax mhm. dañ ma yar ci waaw góoru tàkkusaan du ma taxaw ndamu ndax timis a ngi ñëw gis nga ña taxawoon ne moo fi gën bëri na ñoo xamante ne nii biñ doon wax ne Lamine bu ñu amoon doom tuddee la ko buñ kii ma ne suma soxna boobu génnagul réew ma ne ko ñii naa leen natt bu natt bi natt bii ñëwee mooy su ma leen war a teeg damay bàyyi ba mu des ñetti personne yi ëppoon yi ma daan wax la wala juróom ma téexaas bi dajale ko rek woolu leen xool woolu leen suma kër ñu togg ndaw lu baax ñu toog mu ne nañ leen waxtaan ba pare ñu doog a doog a doog a reer or que bu ñu waxee ma ne leen na xaalis bi ndox dafa am expliquer leen ne leen xam ngeen diw xam ngeen diw dañ leen a jiiñ viol dix ans de prison et cetera ñu masoo ko naqarlu ko ñoom tamit ndax xam nañ ko waa suñu commerçant suñu mbokkum commerçant la woon ndeysaan ma ne ko tamit xam ngeen Baara Touré mu ngi dëkkoon Amexe village yàlla dogal na ci yoonu tubaab bi la des te moom it teggeloon nañ ko lu mu gàtt gàtt 3 euh, millions wax ko yu bëri ma ne leen nag yii moo sabab ku ci nekk yéen war naa laa jox ñii 4 millions ñii 3 millions ñu mën a leen léegi xaar leen ba ay 3 mois 4 mois mais automatiquement rek da ngay dañuy dañuy mel ni seen. da ngay lire seen kanam réagir seen kanam. muy xaar voilà ah waaye tamit loolu dina doy waar di. dina dem ne ah noonu la mën a demee léegi daal koo xam ne tamit mënoo ko muñ nga dem gendarmerie après suba ñu ànd ñun ñëpp rek wala gannaaw suba yéen a xam ne heure bi ngeen bëgg a bind plainte rek ñu demandoon ndax kaso moom jombul gor gu baax. Mm-hmm. ah ah waaye kon jaral na lool ak ah, ñun tamit garaawul nañu dara lool après bi ñu ñëwee bëgg a wàcc escalier yi kii nga xam ne gor la maa ngi koy nuyu suma xarit ma woo ko mu ñëw ma ne ko kaay Modou ma tuddee dama doon sax moom tamit doom la ma waxoon def na ko bu mu ñëwee ma ne ko dama leen doon tooñ rek si laa wax soxna ma dem ñaan ne ko jottali ma saag bu mag bi ci biir mu jox ma ku ci nekk ni ma takkee sa xaalis. Oh, ak ni ma ko biddee. jox leen jox leen. waaye léegi yow da ngaa mën a tooñ quoi. <laughs> ma ne ko ci man tooñu ma ne ko maa ngi leen di xool xam nga juste da ngeen tàmmal sama nopp yi yow yaay di nii ma ne ko man yooyu du lu ma convaincre ci nit ki nit du ma jox lu may dundee nit duma ma convaincre lii su ma ci bëggoon dara intérêt yi banque di laaj dama koy laaj su ma ci bëggoon dara dama naan ku ma teggil danga may jox temps kenn mas la wax ci yéen ne teggil na ma jox ma cinq francs te pourtant banque bi muy tëgg tëdd dañ dañ koy dagg ba ba ba weeri jeex ñetteel bu si topp mooy wax ma kenn mu tegal ma loxo li ngeen di tegt lépp dañ koy def ci papier tiiree ko ba temps de jours yi nga war a teg envoyé la ko sa sa sa sa téléphone. Mhm. chaque jour ngay xool. Mhm. ban date lañ tàmbali ban la war a jeex et cetera et cetera. Mhm. kon dañuy àndoo ci euh, ngir yàlla mais ànduñu ci folklore yi Sénégal yi nga xam ne ñoom bu ñu jekkee indi wax teg bu ñu jekk dee indi wax teg indi wax teg moo tax man li ma ciy convaincre du bëri. moo tax bëri na yi ñu ci dal yu ah. bëri waaye dañuy génne suñu poche bopp. daal di ko ci def daal di ko ci def. merci beaucoup soo amee ay questions yoo ko posé. waaw jatu xanaa mhm. di ko diko diko jaajëfal rek mhm. euh, di ko encouragé bu baax aussi mhm. sànq si récé mu dégg muy wax récit bi mu doon def sànq ci mhm. jaar-jaaram euh, muy wax ne nul n'est prophète chez soi euh, ma koy dëggal bu baax mais nag ku yàgg si teen baak fekk la fa te mooy li ngay doxalee nii ma ci jaare aussi di ziar ñi nga xam ne ñooy wax ëttu baay xam Kébé nekk fii ci Tëngéej ma di leen ziar bu baax a baax baax di wax ne rek taalibe baay nii la mën a mel du ma du ma du ma du ma wax keneen dama naan taalibe baay nii la mën a mel xam-xam leen si jàppale doomu aadama ku leen xam-xam leen si jom muy fi mu waxee ne amoon na ay mbokk yoo xam ne nekkoon nañ fii mu mënoon a dem si ñoom fanaan du ko def ma ciy gis ñu bëri nag ñoo xam ne dañ koy dund comme moom ni mu koy dundee nii mais incha allah lépp dina ñëw man nag lenn rek moom laa bëggoon xam ndax man nii nga xam ne man day faatu yoruma dara tey ma bëgg a liggéey am fu ma toll daanu mm-hmm. est-ce que su ma jógoon ak sama loxo ne ñëw ne la damaa bëgg liggéey loo may jàppale waaw loolu dañ koy def juste jàppale bu ko tegee ci. lu nit ñàkk ñàkk ñàkkul trois ndimbal gi ci Lamine war a def nag mooy ku xiif day yàkkamtee lekk. dëgg la xam nga ni kii mënul. Mhm. mais mu ngi débrouiller. Mhm. li tax muy débrouiller mooy nga sowe ma sowe mbooloo mi nga xam ne ñoo na dara teggil. dëgg la ndax ay dërëmi commerçant centenaire ba Kër Mbay Fall la ñuy boole. Mhm. tënk ko mu doon ay millions ñu woo la jox la ko. saa bi mooy bokk Lamine moom it xam na sa situation. Mhm. pour parce que du loterie. du loterie du mhm. du kay parce que da gis ñu bokk fukki loxo da gis ñu bokk cinq loxo. Mhm. tey boo ko loterie ñoon mën nañoo gént ñeenti yoon ba ñetti yoon. amaana dinañ ne Lamine askan nekk daf leen beral loxo. mais yow mi bokk. ñu xool situation xam ne tey soo sooxee. di nga handicapé mbooloo mi. et eh, na la Lamine teggil bu fekkee tamit am nga dooley cinq mille xayrun la même chose. boo amee mais li nga xam ne tey mooy jàppale bi mooy njëkk laa teggil wala booleel na ci ci kuddi njëkk yi. comme nga bokk ci ñu njëkk a jël parce que boo ci jëlee. am na ñoo xam ne nii siiru maan oto lañ daan doon. Mhm. liñ daan presque dundee. Mhm. lañ daan tege mais biñ leen teggalee bañ dem jënd seen taxi. ay léwén tey ñu ngi mën a teg sax suñu taxi. Mhm. am na ci tey koo xamante ne nii tailleur la woon. boo ko teggalee mu defar bërëbam mhm. gën a mën a am fit ci liggéeyam mhm. boo euh, day man a sax ñoqali bokk ci journée quinze mille bi mais jàppale bi mu ngi tege ci bindul bokk ci course bi léegi nag kakayor moom na fexe yow nga nga nga a jot xaalis pour mën a def sa projet merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax a baax mbokk téléspectateurs yi nee naa leen Café Show Plus ñi lay demee saa su nekk rek mm. nee leen lépp luñ fiy waxtaane njëriñ lay doon jàngat lay doon ndaxte nee leen bu ngeen toogee ba jàkkaarloo ñun bu ngeen fi jógee rek di ngeen am loo xamante ne di ngeen ko fi jëlee loo xam ne dina leen amal njëriñ macha allah ñu ngi lay remercier bu baax a a baax daal di bàyyi rek papa papa yow moom papa bu Sonko laa gis loolu rek laa laaj. loolu nga ma laaj dinaa sawar pour euh, tontu la ci quoi. sa candidat niñ ko def. non non noonu laa ko mën a waxee rek. xam nga du ñàkk nga am loo ci. xam nga Sonko moom. Mhm. nañ ko teg ci loxo yàlla rek. Mhm. parce que euh, bu ñu nee tey jii nii euh, équipe nationale bu Sénégal muy football. Mhm. ak Mali. ñu ne arbitre bi malien la. arbitre bi nekk VAR. malien la. ñu ngi koy footballee Mali. kon Sénégal yaakaar naa match boobu noonu. am na amul mille day day perte du gañ. du gañ mm-hmm. kon nag élection yi noonu lañ ko tëggee. bu dee mm-hmm. Antoine Diome mi nga xam ne sii nii moo bokk bennoo boo ko yaakaar mooy mm-hmm. organiser élection. ñoom ñooy def lu leen neex. mais nag ñun suñu lépp dañ ko teg ci mbiru yàlla. Sonko même buñ ko joxul fii su parrainage. ñun suñuy député kese kese kese mun nañ ko parrainer. comment ça. parce que tey jii nii ñun. am nañ 26 députés te ñoom nee nañ 13 députés rek mun nañ mun na mun na parrainer n'est-ce pas. Mm-hmm. ñoom ñoo ko wax ñoom ñoo dugal seen seen loi. Mm-hmm. ndax lan parce que bëgg nañ xalifa sàll bokk bëgg nañ euh, Karim bokk te xalifa Sall 13 députés la am ñu wàccee ko ba 13 députés. Mm-hmm. kon ñun suñuy suñuy 26 députés rek mun nañ parrainer ñaari nit. n'est-ce pas kon ñun soxlawuñu fiisu parrainage pour mun a bokk ci ay loolu benn entre parenthèse rek. deuxième entre parenthèse nañ leen tey jii nii suñu beneen stratégie tegal nañ leen cinq candidats. xanaa nag bu sonkoo demul Guy Marius Sagna dina dem xanaa buy Guy Marius Sagna demul Abass Fall dina dem xanaa bu Abass Fall demul euh, kii dina dem Almali Ndiaye dina dem Bassirou Diomaye fay dina dem parce que nag réew mi nag nañu waxante dëgg lu ñu nangul tey jii nii Ablaye Wade du Macky Sall lañ koy nangul c'est pas Macky Sall tey jii dañu dañu diir kii mooy bokk wala kii du bokk wala kii mooy dem wala kii du dem élection yi c'est pour nous les Sénégalais ñooy tànn suñu njiitum réew ñun sénégalais ñooy tànn suñu président n'est-ce pas moom la ñu sekkoon ak moom la ñu warloon ak moom mhm. jeex na mooy ñaari mooy ñaari jeex na jeex na moom jeexal na daal jeexal na na dem comme ñuy jéem a forcé nag ku mënta gañe nag sa sa sa sa quartier mhm. waxuma la ne yow mën nga gañe Sénégal mhm. nest mais est-ce que jàpp nga ni aussi kim ñuy jéem a forcé ki muy jéem kim ñuy bu fekkente ne tamit nit ñi votaluñ ko est-ce que dina nekk président aussi tamit loolu tamit moom dafa teg rek ne maa ngi dafa indi proposé rek ne moom kii la teg comme candidat donc mais ça ne pas dire que nit euh, mhm. ñi ñoo ko ne yow jeune politique nga mu foog ne moom carrément comme Sénégal rek boo ko nee sa waaye yow cere ji neex na mu ne noonu sama tànk laa ko doon mooñee mhm. du jeune <laughs> pas Sénégal ñu bokk ñun. Mhm. jàpp nga ne ñi nga fi signé GMS et consort ñi nga fi cité nii. Mhm. jàpp nga ne ñoom war nañoo mën a jiite suñu Sénégal. pourquoi pas. yow gisoo ne euh, instant bi di ngeen nekk ci phase de asalo maanaam nañ jël kii rek kii nekku fi nañ jël kii rek ñu teg es est est-ce que yéen a ngi xam lan mooy république hmm. lan mooy république si boppam est-ce que est-ce que yéen xam ngeen loolu préparé ngeen seen bopp ci loolu xam nga Pastef bu jëmu doomu aadama hmm. parce que projet la projet boo xam ne si nii gis ñu ma la limal nii nii yëpp sax buñ fi nekk loon tey ñu ne ma Papa saw yow doxalal réew mi wallaahi ma doxal ko parce que parce que tey Sonko taal na taal na tey jii nii hmm. esprit yi ba pare Sonko tey taal na bopp yi ba pare hmm. moom mission am bii nii nii bu dee cent pour cent ak quatre-vingt-dix pour cent réussir na ko parce que tey jii boo toogee tey jii nii Sénégal jeunes yi nga xam ne si nii tey ñoom ñëpp instant bii nii lu leen intéressé mooy réew mi te pourtant bu njëkk ba jeune yi réew mi lijjanti wuñ ko ñoom fa la ñu amee seen benn 100 francs wala seen benn 200 la ñuy lijjanti n'est-ce pas xam nga sànq yaay booy am na lu mu wax ba ma koy tooñ ne ko yaay booy léegi pont jamatul kenn xam nga tax pont jamatul kenn parce que réew mi metti na metti boo xam ne si léegi booy seen sareet la ñu yor palaat boo ko jëloon nga may xar lekk ci buntu kër gi sax ñu ñëw fëgg palaat dëgg bu wér la doguma ko sax li mu wax dafa lu ma fàttali sama bon bi dafa ñëw boyal teg bu papa <laughs> maa ngi dee li nga wax dafa dafa boyal bàyyi fourneau bi ci bunt bi sotti xal yi ni day xaar mu sedd pour mu yëkkati ko moment boobu noonu sama doom bi ngi ci terrasse bi rek gis borom charrette bi ñii ñiy wax seeraay euh, mu gis ko rek sama doom bi wàcc kii jël na kii bi euh, lii bi nu tudd fourneau bi mën hmm. a génn la naa may dem ma ngay waaxu di dem ma charrette ba ma ngay dawal charrette bi dem maanaam ñoom tey jii ñoom li ñu jot woon ci 12 ans rek xam nga hmm. dafa doy dëgg la et Sonko ñëw tey jii wan nañu carrément ñun mun nañu dëkk ci réew mi réussir ci réew mi yaay booy dañu waxante dëgg instant bii nii góor bu ñaari jabar ñetti jabar mais suñu rakk yi duñu sëyi ñaata góor ñoo dem ci gaal yi dee ci dee ci gaal yi ñaata ñaata jeune ñoo dee ci gaal yi te ba ñu ngi dem te ba léegi ñu ngi dem mm-hmm. kon nga xam ne ñii amatuñu tey benn espoir tey ci réew mi mm-hmm. suñu seul espoir mm-hmm. c'est Seydina Ousmane Sonko mu sell mi suñu seul espoir mooy Pastef les patriotes te instant bii nag comme dañoo newoon Pastef les patriotes instant ñi ne non dissoudre nañ ko affaire yooyu noonu. Mhm. léegi stratégie bi lan la léegi nekkatul sax Pastef les patriotes léegi ñun dañuy ne patt tey yor bu ñu nee patt bay yor ba jàpp. boobaa nañ xam ne lépp dëgg la dañ xam ne lépp dëgg la yéen a ngi yor daal maanaam comme comme muus boo xam ne bu gisee fee benn jën rek day jël tempsam di jël di raam di raam ba ni coppet jën bi daal di yóbbu Macky Sall <laughs> merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal bu baax baax a baax ma bàyyi leen rek <laughs> plateau bi su ngeen amee lu ngeen ko bëgg laaj ngeen laaj ko rapidement ndax temps bi tënk nañu. <laughs> waaw <laughs> man de li ma fi waxoon rek am na ku ñu invité woon koo xamante ni maa ngi naan leen euh, ni ma gisee Ousmane sonk ak ay nit Ousmane sonk di ko doxalee mm-hmm. kontaan naa ci ndax mm-hmm. euh, boo dee doonee ndaw mm-hmm. am fi nga bëgg yegg bul ko boole xeex bul ko boole xuloo wax na ko léegi dox leen ngeen doxal xool fi ngeen jëm gis li ngeen bëgg ngeen dem jël ko ndax nag il est temps mm-hmm. yéen a war a yor réew mm-hmm. Mm-hmm. loolu moom am naa ci kontaante lool lool lool lool loolu di la ci jaajëfal <laughs> merci merci beaucoup aha ah. allez mooy comme li lay faatu wax léegi rek du ah, ah. problème de personnage nit bi mooy yor réew mi parce que bu ñu delloo à 2011 yaakaar naa benn yi fi nekkoon Benno ak AFEC Tanor Benno ak Moustapha Niasse alliance des forces progrès mhm. ñooñu lañ doon ay dansoxo ñooñu nga xam ne ni ay anciens politiciens lañ leen daan wooyee ci mhm. système bi la ñu màggee ci lañ jàngee ci lañ dundee mhm. ñu lañ doon xalaat pour ñu pour ñu yor réew mi parce que équipe la mu ngi mel tey nga ne kër gi tey lu ngeen mën a mën a génnee people kii tey lu mu mën a présenté émission bi. Mhm. amaana bu caméra yi tàkkutoon ndimbalu technicien yi. Mhm. dara du fi dox. dara lii nag mooy équipe bu ñuy wax gouvernement. pour man loolu du du du du ngaañ. Mhm. tey tey boo xoolee ñu ko gën a suufee ah, ñu ngi ñu ngi laaj ñu ngi man mii sax xam naa ci kanam tuuti di ngeen gis sama candidature. incha allah ah 65 millions mooy caution bi. nga doon sénégalais bu sa def jëyee. am staff. am projet boo xamante ni da koy réaliser. bàyyi bàyyi Cheikh mais du ma bàyyi ma fenn. <laughs> incha allah ah déedéet non non non. Ah, xaw ma nag kuy jël allahu axlam. ndax jaam rafet njott ci lay demee. mais bu fekkee ne. bëggal lu baax sa réew sañ koo laaj te doon doomu réew ma. moom danaa ci bokk. incha allah incha parce que sabab bi mooy du man maa yenu Sénégal damay daw ak moom. Mhm. équipe la ay xalaat la. ne war naa jëlee fii réew mi en tant que recette ñu am ci wàllu développement. Mm-hmm. tàmbale ko ci wàllu zircon. Mm-hmm. pétrole gaz. et cetera et cetera ñu boolante ko. Mm-hmm. lan moo war a doon contrat yi ñun ak suñu yeneen naataango réew yu fi ñëw. yan lañ war a tegaat ci ay raay yi ñu war a jëmale kanam te loolu mooy projet bi mu wax nii. Sonko moom la moom la def. Sonko loolu mu def. dina ko may possibilité mooy comme kenn ku ci nekk boo dikkee rek ci projet solution. boo ci sukkandikoo rek mën nga gouverner réew mi. parce que liggéey boo gis lu kenn man wala fa koy ñaar ñaara ko daal li am solo rek mooy nga bëgg sa dëkk man fi may ñaan rek mooy Macky sàll mooy comme yegg si na ba fii te rafetal na ko liggéey na li ci baax li ci bon yàlla moo xam ne ayam moo fépp bu mu jël nag cin li moromam war a toggee di ko damm ak damu tànk yaag wala mu koy jéem a bënn yooyu yëpp day indi Euh, yéex aj rek parce que waaw kay du du defet <laughs> comme yàlla dogal ne na defatul troisième mandat ñu di ko jaajëfal mhm. dem na euh, ziare kilifa di indi na mbërëm muy Amadou Ba mhm. eh, na bàyyi tamit Sonko euh, Khalifa Sall la ngeen muy wuti ay ay ay ay parrainage na bàyyi tamit mhm. kii kii ñëw bu ñëwee que gañ parce que du kii bu ñëwee daf may gañe parce que Sonko moom it bu ñëwee war na tal fii mu fekk réew mi ci ay ay circonstances yu dangereuses mu lijjanti ko paa nekk kama dooroon gaaw ba kama doon loolu xam naa ne du am esprit moo tax kenn ku ci mënta nekk rek si ñoom mhm. na jiitale intérêt général mhm. xam ne réew mi suñu réew la mhm. te nañu defar tout le temps rek moo gën ñu yàq yàlla ñu yàlla maye possibilité ñu man di defar mën di defar merci beaucoup merci beaucoup waaw allez-y rapidement temps bi ci gis nga Amadou Ba am na ci ay groupe whatsapp am yoo xam ne si nii wallahi jeunes yu bëri yi fa nekk gëmuñu ko wecc tam lañu ko maanaam li leen di jox. li ñu leen di jox la ñu gëm. Mhm. instant bi nag bu duggee ci panel am dugg groupe whatsapp am gis jeunes yi fa nekk mu foog nekk ni carrément ñi ñëpp pour moom la. Mhm. bisu élection lay xam ne Amadou Ba du dara. Mhm. parce que bu fekkee ne yow da nga ñëw indi sa mbër pour mu bëre. kam war a bëreel nga takk loxo yi. takk tànk yi ne ko bëre leen. Sonko buñ ko jéngoon. 42 fois mu daan leen 42 fois. <laughs> merci beaucoup kii moom xam papa ñu ngi lay jaajëfal bu baax si contribution bi am na solo lool ndax nee naa la ku ci nekk rek am nga droit. Mm-hmm. ci li nga bëgg ci li nga bokk ki nga faral am nga droit défendre am nga droit ci moom loo xamante ne nii euh, loo xamante ne jàngal na la ko nga bëgg ko mm-hmm. relever donc ñu ngi la ciy jaajëfal a baax nee naa leen nee nee naa leen fu muy jeexee à chaque fois bëgg mu commencé ndax émission bi day neex a neex a neex ba du ma bëgg ko defee damay daal di bàyyi soxna jaara bu sox nga tàggatoo mbokku téléspectateurs yi yi maa ngi leen di bu dul tàggatoo ak yéen. Mm-hmm. di am kontaan te lool nag ci plateau ñi ma bokkal plateau bi macha allah. Mm-hmm. di leen ñaanal yàlla jàmm ak sutura xéewal. Mm-hmm. di ko ñaanal mboolem xale bu nekk ci biir kër gi jatu di rafetlu sa émission Café Show bi. damay wax ni ñàkk ko seetaan baaxul. ndax boo ko seetaanalee yaa ngi ci erreur ndax dafa bari njariñ yoo xamante ni mi ngi ci biir. mi dëgg la di gërëm nday faatu sama goro bu baax bi. di ñaanal ñëpp jàmm. di nuyu nag ki nga xamante ni moom laa àndaloon dem gàmm. <laughs> maa wax yi da ngeen di reetaan mhm. mais jatu bi ma demee ba xabru sëñ Babacar Si mhm. barki yonent bi sallallahu alayhi wa dafa mhm. mel ne maa ngi màkk man sama colaay ni ma coloo ñëw Euh, en tant que taalibe seex bi ma doon boo xamante ne nii dafa mel maa ngi janoo kaaba yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, macha allah ak sama góor gi <laughs> naar ba ma ca borom war baay bi des tongo sama borom ñaan yàlla fanam gudd lool lool lool amiin yaa rabbi ba fekkee njëriñu amiin yaa rabbi ah, la mu sañ sama yaakaaroon dafa jóge maak amiin yaa rabbi soxna jaara buso amiin yaa rabbi amiin amiin yaa rabbi merci beaucoup soxna jaara buso borom astuce nee naa leen tout qui est astuce moom la indi tegal ñu ko ci bi ñu ko ci jaajëf bu baax tey mu indiloon ñu li nga xam ne moom mooy plante mu ngi indiloon ñu li nga xam ne mooy feuille de mangue mm. feuille de mangue li mu ci wax am na solo donc noté ko te ngeen essayé ko incha allah soxna Diarra ñu ngi lay jaajëfal bu baax su ko defee damay daal di baax bàyyi rek euh, monsieur Lamine ma daal di la bàyyi rek euh, nee la kon amoon naa mbégte nag ak kontaan bokk ko <laughs> mhm. defal lu kawe sa waxtu ma bàyyi la nga daal di tàggatoo ak mbokku téléspectateurs yi nga daal di ma motiver waaye ñi nga xam ne yow la seetaan <laughs> te di leen wax ne leen voilà tontine bi moom moo nekk noonu euh, waxuñu ne dañ ko tënk rek ci commerçant yi mag yi mm-hmm. ku am diggu doomu ba ñu ci kaw mm-hmm. ñëpp mën nañ ci bokk ci bu ñu jëlee suñu numéro téléphone mm-hmm. kenn ku ci nekk fépp foo mënta nekk rek yaakaar naa ne mën sax numéro téléphone voilà voilà mooy ne ku ci woote di nga ci jot 77 942 97 73 77 942 rek moo moo ci moo ci nekk te moo ñu si tax a dugg mhm. moo ñun ñëpp ñu doonandoo dara ku ci amul yaay am nga papa am mag wala nga rakk wala am nga jabar yoo xam ne nii dund jullit bi mu ngi mën a mën a ñoŋ ci bi mënee boppam mhm. doomu aadama bu mënee boppam rek dina dina suturaal boppam mhm. mais dina suturaal mbokk jullitam te doomu aadama saa buy xëy rek ne ñaan yàlla yokkute ci tous les plans mhm. te loolu moo waral sabab sunu fatigue bi incha allah macha allah am na solo ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax a baax amoon nañ mbégte ak kontaan dalal la ci plateau bi Ndeye Fatou ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ma bàyyi la nga tàggatoo mbokku téléspectateurs yi di la remercier mhm. mhm. euh, aussi plateau bi ni mu demee ak mhm. euh, intervention yi aussi euh, papa man je ne suis pas anti Sonko man je suis anti régime colonialisme régime archaïque yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon man je suis contre je suis pour le rajeunissement des partis euh, le rajeunissement des partis soo ko déggee mooy euh, ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon ma man ci cité benn muy euh, bennoo bokk yaakaar ak ñi nga xam ne ñoom lañ àndaloon muy les les anciens gloires ñu céder la place ñu rajeunir parti yi Euh, dugal xale yi. Euh, soo gisee euh, li nga xam ne nii moom la moom moom la waa APR def moom la waa Benno Bokk Yaakaar def. Mhm. ñu jël ñi nga xam ne nii ay ay parti lañ yoo xam ne nii dañoo am doole tel que le parti socialiste parti socialiste ku ko xam-xam ne jamono jii dafa régénéru ñi nekk ci suuf nekk ci base bi laay wax mais ñoom ñoo ñooñu nga xam ne ñooy ancien gloire yi dañoo jël tabb seen bopp tabb ñi nga xam ne ñoom ñoo leen neex tabb ñi nga xam ne depuis que ñu nekk xale ba léegi di raam ba léegi ñoom lañ fiy gis euh, donc jot na système bi mu changé jot na ñi nga xam ne nii ay xale lañ te am xalaat lool am xam-xam lool euh, ñu ñëw taxaw installé wu parce que euh, politique science la science boo xam ne dañ koy jàng te maintenant xale yi ñëpp jàng tey fekkate ne dama woon université sax mën nga am sa ay jumtukaay sa xarala nga toog jàngale li nga xam ne mooy science politique euh, donc gouverner euh, dama naan yomb na dama naan yombul mais il suffit juste que rek ñu jox ndaw ñi seen sens euh, may tàgguwaale di nuyu ki nga xam ne mooy sama président préféré muy le président Abdou Karim Mbengue ma koy ziar bu baax le président du mouvement bay sa waar si Tëngéej muy bay waaram saa su nekk ñu koy ziar bu baax di ko ndokkeel di tàggu ñi nga xam ne mooy téléspectateur Kër Ndaanaan TV di leen wax ne leen continuer leen ngeen abonné aimer gi soxna Diarra ma lay nuyu bu baax sama goro bi kontaan ci yow bu baax euh, di nuyu encore suñu mbokk bi nga xam ne ni bokkoon nañ plateau euh, di ko seetee ki nga xam ne mooy Maulana Cheikh Ibrahima Niass dama koo bëgg ba su may wax ci moom du ma am sago parce que li nga xam ne moom lay def ci taal bi yëpp man day faatu man moom la def ci man dama koy ndamoo saa su nekk euh, di la ziar bu baax papa di la wax bonne continuation macha allah merci beaucoup Ndeye Fatou ñu ngi lay ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax nee naa leen moom nga xam ne Ndeye Fatou tout ce qui est actualité people moom la indi tegal ñu ko ci table ñu ngi ko ciy jaajëfal bu baax ndax mu ngi ciy liggéey liggéey bu am solo macha allah voilà su ko defee papa doyaluñu nag vraiment mais bon nii la fa waroon demee ma bàyyi nga tàggatoo ba prochaine fois rek incha allah ma bàyyi la nga tàggatoo mbokku téléspectateurs yi. di leen sant bu baax a baax a mm-hmm. baax a baax di leen gërëmaat encore une fois. Mm-hmm. leen wax ne kontaan naa ci jotaay bi kontaan naa ci échange aussi tamit bi ñu def. Mm-hmm. Ndeye Fatou li nga wax rek fa laa lay fekk si. ñun ñëpp. lenn rek la ñu bëgg muy Sénégal baax ñun ñëpp lenn rek lañu bëgg muy Sénégal changé te Sénégal tey jii nii bu changé ñun même bu ci gisul suñu bopp sax suñuy doom génération future dinañ ci gis seen bopp mhm. parce que tey jii nii dëkk boo gis tey jii mu avancé wala mu mhm. développé am na ñu fa nekkoon ñoo xam ne si ñoo sacrifié wu pour mhm. dëkk boobu avancé te ñun tey jii nii loolu lañ bëggal tey suñu réew loolu lañ bëggal tey jii nii suñuy doom loolu lañ bëggal tey jii nii génération future bii di ñëw ñu xam ne kat ah ñoom kat seen i mag wala seen i papa wala seen yaay Mm-hmm. yaafu suñu woon mm-hmm. amaana bu ñu ñëwee tey fekk mu neex fekk na ni ñoom defar nañ terrain bi ba pare xeexoon nañu tey bii ba lépp moo tax euh, man musuma dugg ci politique. Mhm. sama yoon sa nekk ci politique. Mhm. mais gis nga Sonko li mu indi. Mhm. dama cee gis sama bopp ba dama cee takk rip. di euh, sant nag Cheikh Tidiane Fall bu baax a baax a baax a baax a baax parce que ci waawoon këram laa nekkoon. macha allah mais gàmm gi teral nañu. lépp loo xam ne si ni euh, def na ko ren. Euh, déwén yàlla na am lu ko ëpp. amiin yaa rabbi parce que koo ñëw këram. dalal ko ngay ñibbi mu yëkkati paas jox la. Mm. ngay dem mu yëkkati paas jox la. Mm. kooku. yaakaar naa. desalatu la dara dëgg la nga lekk ba suur mm-hmm. naan ba màndi. yaa a indi mu jox la ma waaw yaa war a indi moom mu mm-hmm. <laughs> jox la yëkkatiwaat jox la ndeysaan góor gërëm jabaram bu mm-hmm. baax a baax a baax mari di ko wax ni seetaanuñu benn yoon taxawu nañu jàppale nañu sigil nañu aussi parce que tey jii nii man sama partenaire numéro un moom la dëgg parce que daf ma gis ma nekk xale nekk ci koñ bi xeebu ma wallaahi R plus 1 plus de R plus 3 lu mu am. Mhm. ne lii papa moom ma liggéeyal. bu rombee benn affaire sax gis mu rafet Cheikh Tidiane day photo wala mu vidéo yónnee ma pap lii laa bëgg nga liggéeyal ma. ndeysaan macha allah te lépp lu ma ko wax. Mhm. mu ne ma pap noonu la. Mhm, macha allah teg baat. en tout pap maa ngi lay sant bu baax. di la gërëm bu baax a baax a baax a baax a baax. di la ñaanal gudd fan. di la ñaanal wér. di la ñaanal tey jii nii fépp foo jublu yàlla na fi yàlla jublu. amiin yaa di gërëm tamit sama yaay bu baax a baax a baax mm-hmm. Mm-hmm. parce que tamit tey jii lépp lu ñu doon aussi tamit moom la mm-hmm. di gërëm aussi euh, madame sama jeeg bu boobu Vladimir Poutine kontaan naa <laughs> kontaan naa ci yow gis nga de mu ngi noonu man daal en ba sonn gis naa seen statut gis naa leen di dundee mais noonu li ko neex surtout jabaru xale li ko neex nga di ko def fu ma leen gis da ngeen di bras dessous bras dessus loolu moom loolu neex na ma lool maa ngi lay jaajëfal bu baax jeune am na ñoo xam ne dañ lay gis nga am complicité ak sa jabar nga mhm. nekk ak sa jabar ci jàmm di ko mhm. bégal mhm. ñaan naan non da nga ñàkk fayda wala non da ragal sa jabar pour vous dire du question que di da ragal sa jabar non lenn la mooy sa jabar yaa ko jëlee kër ndeyam ak baayam indi ko sa kër te ba nga koy bëgg am na mm-hmm. góor yàlla yu bëri yu taxaw bëgg ko mu taamu leen la yow laa bëgg mm-hmm. kooku yaa war a nekk yaayam mm-hmm. yaa war a nekk papaam yaa war a nekk magam yaa war a nekk rakkam man daw ma dara ci da nga ñàkk fayda non daw ma loolu daw ñu ne da ngaa ragal sa jabar non daw ma loolu parce que man maa ko <laughs> tànn man maa ko takk man maa ko bëgg te ma di ko lëmbalal sax <laughs> ma ni ko nay neex ma ni ko nay neex saa su nekk nay neex na kër yi di neex na néegi di neex na couple yi di neex neex macha allah loolu rek la mm-hmm. bëgg ñu leen di jaajëfal bu bu baax a baax loo mën ren yàlla nga mën déwén lu ko ëpp ëpp fuuf fuuf fuuf yàlla yokk la ba nga yëkk macha bu ko defee sa mbokk téléspectateurs yi ba beneen incha allah